li ñu sëriñ bi fas yéene indi ci tafsirul quran bi yal na ko yàlla yombal yal na ko yàlla jubal yal na ko yàlla gërëm yal na yàlla def mu doon njëriñ kot incha allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على جميع أنبياء الله تعالى ورسله وعلى خاتمهم سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi mbokk taalibe yi gannaaw ba ñu musoo ci seytaane ak i pexeem ñu ngi tudd magu yàlla subhaanahu wa taala di ko sabbal di toroxlu ci kanamam di ko sant di julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli bu ëmbaale njabootam bu sell gi ak saxaabaam yu tedd yi ak ku leen topp ci xàll wi ñu jaar ba ilaa yawmi diin yan nañu ci yàlla boole ñu di sàkku yërmal yàlla subhaanahu wa taala mu ànd ak ñun ci zahir ak batin ba liggéey gi yàlla jubal ko def ci taysiir ak tawfiq ànd ak ngërëmal yàlla ci barke alquranul karim gannaaw ci loolu nag ñoo ngi leen di nuyu nuyoo yu tedd di nuyoo lislaam yu firi jàmm yàlla ak musalam yan na ko yàlla def ci képp kenn ci yéen ba faw di leen di nuyu nag ci turu mboole seen ku aju ci njabootu sëriñ alxaaji Maajoor Siise radiallahu anhu ak xadaram ànd ci ak sunu mag sëriñ Babacar Siise teewal fi mboole seen njaboot yi nga xamante ni ñu ngi ci bitim réew ak bi Dakar te ngant te leen mën a teew di leen jottali ñoom ñëpp seen nuyoo ak seen ziar ak seen déwnal ak seen ñaan yàlla ci liggéey bi di nuyu mboole seen daayira yi yi aju ci xadara bi te balle ci daayiratul mutahabina fillahi ci góor ak yi jigéen yi di nuyu président yi ak présidente yi ak wóllëre yi ak soppe yi di jagleel nuyoo nag bu baax mboole seen gan yi nga xam ni bàyyeekoo nañu ndakaaru ak li ko wër def délégation ñëw teewal fi yenn ci daayira yi nga xamante ni yoon wi yomb leen mu di jóg bu rëy ci ñun ndax ñiis nañu leen ci ngeen di jóg ñëw gàmm ñiis nañu leen ci ngeen di jóg ñëw ziyaara wante firi alquran weeru koor ak koor tabarakallahu ni ñu xamee ñu mu xati ah ngeen jóg àndandoo ak i soxna ay jigéen bàyyi seen kër bàyyi lépp gannaaw dox yoon wu gudd ba fii teewe fi alquran juri tisbaar tegu ci yoon dellu Dakar loolu lu rëy la jihaad bu rëy la xaw ma kenn de ante yéen kenn gën ëppale lu ñu fee yaakaar ci yiw yàlla ñu ko yàlla boole ak yéen kon président yi aju day daayira Dakar Serigne Major Sow Serigne Cheikh Gueye Mouhamadou Niang Hadj Abdoulaye Seck yéen ñëpp tabaarakallahu ak soxna yi ngeen àndal ci mbooloo mi kontaan nañ ci seen ñëw yal na di tànku baraka yal na di tànku yiw yal na di tànku tuyaaba yal na di tànku farbakaar ci yéen ak ci ñun ak faju aajo adduna ak alaxira fa tabaarakallahu bis bii nag dañ cee sant yàlla sant amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem ci dimbali ji mu ñu dimbali ba ñu teye woon ko daaw alhamdulilahi rabbil alamin ci kattanam mu suturaal ñu rey nit ñu àndandoo di ko teewe yal nañ ko teewaat at yu bare bare bare te yëpp mu di yokkute ci diini wa dunya wal axira bala ñuy sore dinañu fàttaliku ci ay ñaan sëriñ bu tedd bi nga xam ni moo sañcoon jataay bu tedd bii faggul ñu ngëneel faggul ñu defaru ak tuyaaba wu àdduna ak alaxira mu di mawlaana Cheikh Alxaaji Maajoor Siise radiallahu taala anhu nga xam ni lu ko itteeloon la jataay bi lu ko ñoroon la tabaarakallahu ba yàlla def mu santaane ko def ci ñaan yàllam yéen ñëpp xam ngeen ni su bis bi daan teew te fa mu nekk ca biir néegam daan nañ ko tegal rajo bi mu ubbi jataay bi nuyunte ak mbooloo mi ñaanal yilimaan soogaa joxe ndigal ñu ubbi liggéey bi suñu noppee it mu jëlaat rajo bi sant yàlla rafetlu ko tabaarakallahu gërëm mbooloo mi kon liggéey la boo xamante ni responsabilité la woon bu mu fonk mu itteel ko loolu macha allahu taala tey jii ma nga cee njëgal yàlla ah ñu sàkku ñaan ci mbooloo mi teew yëpp kenn ku ci nekk def faatixatul kitaab benn yoon ñetti lixlaas ànd ak bismillahi rahmaani rahim ak ñetti salaatu ala nabi ñu fasal ko addiyee sëriñ alxaaji maajoor siise radiallahu anhu ak sëriñam bu tedd ba sëriñ babacar si radiallahu anhu ak seeni sëriñ yëpp ba ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fasaale seen néew jullit yëpp barke ñaan gi yal na ko yàlla def muy leer ak yërmale ak ngërëm mu sëmbar tëlka ci rooxu sëriñ alxaaji Maajoor Siise radiallahu anhu ak sëriñam bu tedd ba sëriñ Babacar Si radiallahu anhu ak seeni sëriñ ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke ñaan gi yal na ci yàlla xool bu ci yërmale mboole seen néew julli ci biir suuf rawaate na ñu bokkoon ci mbooloo mi ànd ci ak ñun teddee rek yàq lañu wa xaasatan niñ ko bokkaloon fecc fan yi lañ fi jóge alaaji Birama Ndiaye alaaji Moodo Baro soxna Mame Fatou Sarr Seck Diop ñoom ñëpp nga xam ni daaw ci waxtu yi ñoo ngi ànd ak ñun ci liggéey bi ak mboole seen néew julli yenn yàlla yokk seen leer yenn yàlla yokk seen yërmane yenn yàlla yokk seen ngërëm bi jaahi sayyidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fa tabaraka allahu ñooñu am ñu seen pay suñu sëriñ bu tedd boobule ah mujahid la ku xeex ci yoonu yàlla la ngir jariñ doomu aadama yi ngir nga ñin ñi jàng ci jëfe lañu jàng yemul rek ci jàngale leen daf leen jàngal ba noppi di surveiller fu mu toll ndax ñoo yi jëfe lañu jàng ba yàlla suturaal ka mu formé ci ñoo xamante ni ay citoyen lañu ci biir réew mi ak ci biti réew fu ñu dem ñu naw leen ndax seen jikko yu rafet seen taxawaayu diine kooku liggéeyu seen alxaaj majoor la yal nay law ba ilal abati ci biir liggéey boobu it yàlla may ka tabu xol ci xam-xamam ak tabu xol ci bëgg ñëpp jariñu kenn bañ des gannaaw lépp loo xam ni xam na ni su ko taalibee defee dana ci am ngërëmal yàlla dana ci am tuyaaba dana ci texe rek dañu def leen nangam def leen nangam ci biir yooyu lañu sankere jotaay bii muy jotaayu sunna ndax ñëpp xam nañu ni sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam su weeru koor masaan jot jibril alayhi salaam daan na ñëw ci moom ñu àndandoo nafar alquran at mu jot dina ñëw ci moom benn yoon nafar alquran ba benn ci at yi jibril alayhi salaam ñëw na ci moom ñaari yoon gannaaw weeru koor mu dellu ci wax nafar alquran at moomu rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni lii de dellu si jibril bi ne la may nuru mooy dafa mel na sama mission jeex na ndax al weeru koor jaar na fi nafar nañu alquran mu dellu ci waat nafaraat ko ba mu jeex takk kon mission ba jeex na at moomu la sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna sunna boobu nag moom la borom xam-xam yi di dundal su weeru koor jotee ndax ci weeru koor ci la alquran wàcc ci weeru koor ci la sallallahu alayhi wa sallam daan nafar alquran kon weeru koor mooy anniversaire u alquran borom xam-xam yi ci la ñoo tànt daje ci jumaa yi ci béréb yu sell yi ci jàkk yi tabaarakallahu kenn ku ne la nga xam nga jéem ko génne laawi biir ñi nga xamante ni yaa leen tane ci xam-xam boobu la sunna ci tabaarakallahu di liggéeyal diine di taxaw taxawaayu jàmbaarul islaam sëriñ alxaaj maajo siise radiallahu anhu taxawoon na ko ba sañcal mu jotaay bii nga xam ni ngëneel kott la ngëneel yooyu le sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni al juluusu saa inda xalqatin yadkuru allah fii xayrun min ibadati alf sana dafa wax moom sallallahu alayhi wa sallam ni yow julit bi nga toog benn waxtu ci béréb bu ñëw tudde yàlla di fa màggale yàlla di fa jàngale xam-xam di fa firi alquran lépp tudd yàlla la ne moo gën jaamu yàlla at soo doon julli julli junne at alfu sana junne at jaamu yàlla junne at mooy julli junne at wala woor junne at wala taj màkka junne at wala faraxe junne at ba génne asaka junne at loolu yëpp jaamu yàlla nee na nga toog benn waxtu ci benn jetaay bu ñoo màggale yàlla di ko tudd turam bi nen moo ko gën kon nit yàlla yi fi ñu jaarale xam nañu ko ndax junne at yombul ci nit nga dund ko soo ko dundoo nit yombul ci yow nga jaamu ci yàlla na mu waree wante nag ci benn minute danañ la fàggul texe àdduna ak alaxira wax ba tey sallallahu alayhi wa sallam ni majtamaa qawmun fi baytin min buyuti llah yatluuna kitaab allahi wa yatadarasuuna baynahum illa nazalat alayhim alsakina wa gashiyatuhum rahma wa xafathum almalaika wa zakarahum allah fi man indahu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam amul benn béréb boo xam ni danañ fa daje ñun jullit yi di jàng diine yàlla ci mbaa ñu di ko jàngalante ci sunu biir ne ndaree bu tey yàlla dana yebal malaaka yërmali mu teew te jataay ba yeneen malaaka ñëw képp ku fa teewoon ñu bind sa tur yóbbu ko yàlla tudd sa tur ca malaw aala ca péen kawe ga sidratul muntahi kooku jar na koy kooku jar na daw ba dee jar na daw ba dee ngir yàlla boole la ca ñu muy tudd ca malawul aala ndax ku yàlla tudd ca malawul aala texe nga te fii ñu toog ba bëri ñu fee jógee kenn xamul sa bopp dara suñu fi jógee gannaaw bi ba guddi kenn xamul sa bopp dara kon su la yàlla mayee nga teew ci lu ni mel ñu boole la ca way taxe ya yàlla tudd la ca malawul aala jar na ko kon fu ñu déggatee jitaayu diine tabaarakallahu bu yàlla rek tax jar na di teew ngir mën a am ci yooyu tuyaab kon mag ñi fa jazahumullahu jazaan muhsinina kenn mënu leen fay mu mel ne itam weeru alquran ji yàlla wax ci yaxal ka ci alquran shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan nee na weeru koor ci la wàcce alquran muy téere bi nga xam ni moo lañu teg ci yoonu jub di leen leeral diggante caaxaan ak dëggu yàlla ji tabaarakallahu di wan nit ñi lu baax lu war ci jaar wan leen yoonu ñell yu war ko moytu muri téere bi nga xam ni nag soob na yàlla subhaanahu wa taala mu wàcce ko ci weeru koor mu complet mu jóge baytul izzati ba ci asamaan jii ñu tiim jibril alayhi salaam garde ka foofule pendant vingt trois ans ñaar fukki at ak ñett di ko rassuré yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama ko dikk mais alquran bi muy ñëw benn ñëw la ñëwandoo complet la ñëwandoo jóge sidratul muntaha ñëw ba ci asamaan jii ñu tiim fa la ko jibi alayhi salaam denc ci trésor ya ñëw nag di ko rassuré sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn par benn suivant circonstance bu am mun ko yàlla nee na yàlla nee na ba pendant vingt trois ans mooy di mooy dir mission yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu di kéemaan bu sax gi nga xam ni ba ilaa yawmi diin dara mënu ko soppi ndax muy dëggu yàlla muy xéewal bu sax mu ni wa man hudiya bihi hudiya ila siratul mustaqim képp koo xam ne yaa ngi woote ci yoonu alquran yaa ngi woote ci yoonu siratul mustaqim kon nag jullit bi téere yu mel noonu suñ ko jotee su weeru koor jotee war nañ ci am beneen taxawaay buñ ko war taxaw naan at mi yépp ñoo ngi ko dundal ndax ñoo ngi julli ñoo ngi waare ñoo ngi koy ñoo ngi koy nafa wàcce kaamil yi wante weeru koor dafa war am beneen taxawaay bu ñu war taxaw ci alquran responsabilité lañ ci am ndax yàlla dafa tànn xeet yépp yu jiitu jox leen leneen ñëw jox yéen saa salaam alquran muy téere bi nga xamante ni moo gën a matale ci téere yi mu yónni indi ëmb xabaaru démb xabaaru tey ak xabaar yu dikkigul kon wa ala almuslimina wa hum fi ramadan muazzam an yadkuru fadla alquran alkarim alayhim wa yaqumu masuliyatihim tijah fa yatlunahu wa yafhamunahu wa yaxfadunahu ويكونون له جنودا عاملين مخلصين kon li ñu wax ci responsabilité alquran ci weeru koor mooy lan mooy jàng ko mooy jàngale ko mooy fexe ba dégg ko kenn lay sa kàttan kenn ku ne war na def itteem weeru koor bokk ngir naa fexe ba saa fàngam ma xam su koor yi tegloonte su la yàlla suturalee nga gudd fan insha allahu taala sañ nga ni sa biir dund jàng nga alquran ba mu jeex firil nañ la alquran ba mu jeex jàng ko nafar ko fexe ba dégg ka xam maana yi wante nag nekk soldaru alquran di ko jëfe-jëfe bu sell nekk soldaru alquran ñun ñëpp jullit bi ñu war mooy nekk soldaru alquran di ko jëfe fu ñu gis nit ku ko jëfewul it ñu fexe ba lawele biir ba nga dellu sappe yi nit sa soldaar yi nekk sappe bu jub wa an yaxritu siyaama bi alquran ñu fexe it ba sunu weeru koor yi ñu jaxase ak alquran ndax alquran ak koor kenn mënu leen jàppale salaa sallam dafa woote ci baat yi mu wax nawiru manazilakum bis salaati wa tilawati alquran ne na ngeen leeral seen kër yi na ngeen leeral seen néeg yi wante na ngeen leeral seen xol yi ndax kër du rek ngaa fanaan néeg du rek ngaa tëdd wante xool bi tabaraka law moo lay yóbbu ba ci béréb yu sell yi mu fanaan mu mu fanaan la fa na ngeen leeral seen xol yi seen xolu kër yi ak alquran ak taqwa ak julli nee na yuqaalu saxibi alquran ida daxala aljanna iqra wasaad fa yaqra wa yasaad bi kulli ayatin daraja xata yaqraw axira cheyin maahu yéen bi ne sallallahu alayhi wa sallam ku jàng alquran soo duggee àjjana malaaka ba ji la yow ni la jàngal te yéegal escalier soo jàngee benn aaya alquran ñu yéegal la benn daraja ci àjjana kon aaya boo mën na mu gën baree rek aaya bu nekk dafa yéegal ci daraja àjjana yi ba ci ñu gën a kawe kawe kon xam ngeen mbokk yi jàng alquran dafa am solo lool mu dellu yoo xamante sallallahu alayhi wa sallam من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام من حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف ni képp ku jàng benn xaraf ci ak teer yàlla bi nee na yàlla bindal la benn xaraf bu nekk fukki yiw yu mel na moom ñu ni mu nag alif la mi mooy xaraf déedéet alifun xaraf la laamun xaraf la miimun xaraf la kon benn xaraf boo jàng ñu bindal la fukki yiw tabarakallah ci xaraf boobu le kon soo jàngee saar naka lay mel soo jàngee kaamil naka lay mel ci yiw yu bare bare yàlla buñ loolu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام يا ربي منعت الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعني yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam bis penc ma nee na ñaari avocat ñooy taxaw alquran ak koor di ramu jàmm ne koor nan yàlla sii de maa ko xañoon lekk maa ko xañoon naan maa ko xañoon li mu bëgg yëpp yàlla xool ma ci nga baal ko alquran jóge fële taxaw ni yàlla kii de maa ko xañoon nelaw guddi gi yëpp dafa fanaan di julli di julli di ma jàng ak di nafar téer yàlla bi yàlla xool ma ci nga baal ko alquran ak koor daal di nekk avocat la yàlla ba yàlla dugal la àjjal yàlla buñ loolu ump kon nag suñu yàlla mayee ba ñu teew fii ci sunu barke sëriñ yi tabarakallahu boobu la ngëneel jar na jàpp ak sunu fukki loxo saar bi indi tey jile fas yi na ko nafar mooy suratul ankabut moo nekk diggante suratul xasas ak suratul ruum bala ñu cee dugg danañu leen wax li nga xam ni dafay jar ala kulli xaal ñu di ko fàttali jamono ju nekk bala ñuy tabbi ci firi alquran bi limaamu tirmisi dafa solo benn xadis bu wér saxaaba bu tedd ne moo ñëw ci jàkk ji gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu aliyun karrama allah wajhahu moo di amirul muminina ne fekk saxaaba yi ñoo ngi def ay géew di werante wiru xadis géew yi xam naa ni dënn yi tàng na werante bi metti na waaja daw ci seydina aliyun karrama allah wajhahu ni ko yaa amirul muminin ana xara nnaas qad xaadu fi l ahadis li ko gis nga ñi ñi de ñi la ñi la ña ngay werante ci xadis yi de ña ngi koy xuus de mun ko loolu am na mun ko entraîné ña jàkk ji di xuus ci xadis yi sidina ali tontu ko ni ko déggu naa si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni innaha satakunu fitna fa qultu fama almaxraj ya rasul allah qaala kitaabu llahi fiihi nabaw ma qablakum wa xabaru ma bacdakum wa xukmu ma baynakum هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يتبع منه العلماء ولا يخلو عن كثرة ربه ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعوى سيدنا علي رضي الله عنه déggu na seen bi sallallahu alayhi wa sallam muy sama gannaaw fitna dina am ñu ne ko yaa rasulallah su fitna amee lu ñuy def mu ni ngeen wëlbati ko jafandu ci alquran muy téere yàlla bi nga xamante ni moo ëmb xabaaru démb moo ëmb xabaaru tey moo ëmb xabaaru ëllëg moo ëmb atte seen diggante mooy li nga xamante ni dëgg la du caaxaan képp ku fi bàyyi seet leneen ngir fànk yàlla dina la damm képp ku ci beneen yoonu njub bu dul alquran fànk nga mooy buumu yàlla bu dëgër bi mooy fikkaru yàlla mooy siraatal mustaqim mooy li nga xamante ni jamono du am ba mu late mbaa mu lam baabu xewi lamuñu borom xam-xam yi duñu ko suur duñu ko dayal borom xam-xam yi duñu ubbi téere yi ba mu late seen seen seen bët mooy li nga xamante ni ay kéemaanam du jeex mooy li nga xamante ni ba ko jinne yi déggee ak jinne li mu mën a werante ak diingat dañu ni inna sami'na qur'anan ajaban dégg nañu alquran ju yéeme joo xamante ni dafa tege ci yoonu njub nangu nañu jinne moo fi dàq werante ak jinnati wante du ñu déggee alquran dañuy lii moom dara fa nangu nañu gëm nañu mu teg ci ni man xaala bi sadaq képp kuy wax te la ngaa wax nga sukkandiku ci alquran wax nga dëgg wa min aw man amila bi ujira képp ku jëfe alquran daa doon ku yàlla yool wa man xakama bihi adala képp kuy attewoo ci alquran jubal nga maandu nga wa man daa ilayhi wudiya ila siratil mustaqim képp kuy woote nag te di woote ci alquran yaa ngi woo nit ñi ci yoonu yàlla yan na ci yàlla xiir jullit yépp ma jàpp ni lii tabarakallahu hadis bi doyoon na référence ci jullit yi fu àdduna jaxasoowee rek ñu référence ci hadis bi mooy dellu ci alquran su dee xabaaru démb danañu ci sukkandiku ci dund yonent yi alayhim salaam fa yàlla jaaree ak ñoom ak xew-xew ya amoon du loolu mooy jurisprudence ci jamono ji su xew-xew amee ci ñoo applique dañoo seet ni am na ab sàngam de xew-xew bu mel ni amoon na ci diggante diw ak diw nii la ñu appee woon alquran indi na ko da yàgg na kon jamono nëxee moo xam ci nguur gi la moo xam ci société bi la moo xam diggante jëkkër ak jabar la moo xam diggante baay ak doom la moo xam diggante kilifa ak njaboot la bu mu ca mënti doon sa atte mi ci alquran nga repéré wu ca la amoon sa démb tabarakallah ba doo bi gëm ko aussi ndax nit loo gëm fi nga gën fi nga mën atte woo gis nga tubaab yi fi ñu jaaral ñun fexe nañu ba jël alquran yàlla yi nga xam ne moom la ñu xam moom la ñu gëm ñu randal ko indi ñu benn code civil ak ay loi yoo xamante ni yëpp ay nit a ko defar ñu gëmloo ñu yooyoo ba ku ñu atteewul tribunal sax jàpp ngeen tabarakallahu atte bi tegul ci yoon te loolu day atte nit la ñu wante yàlla pare na démb ak ñun te sant ñu lu xewoo ci nañu atteewoo ci alquran walakin nag nit ñi seen bakkan mu leen yóbbu lu kenn xamul te ku sa bakkan yóbbee lu kenn xamul yàlla bàyyi nag su bopp suñu yàlla bàyyee suñu bopp nag adduna bi ndax rek la xawla wala quwwata illa billah mais solution bi yàlla rek dina ñu ko démb su ñëpp àndandoo woon nangu rëfeewu ci alquran wallahi alazim jamono ji ni mu nëxee ci adduna bi laa wax du ëtt fi mu egg waaw yal na yàlla defaraat jamono ji ndax mu may borom jamono gannaaw ci loolu li nga xamante ni mooy maraja bala ñuy dugg ci saar bi am na lu ñu naan bibliographie xam ngeen ni tafsiru quran liggéey la boo xam ni dafa war nekk liggéeyu chercheur ndax benn aaya alquran bu nekk i téere téere téere dañ ko firi soo bëggee tënku ci yax bi dong dong dong te demoo ci tafsiru quran yi ñi nga xamante ni ñoo tànqe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu firi la ko duma ni du leer ne wante dana am yu bare yu def ba tax na jaadu woon na ñu seeti ummahat tafasir yi nga xam ni mooy borom xam-xam yi tibbi ca ña tibbi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko bind ñu jël ca ñoom bokk na ci téere buñ naan ruuxul bayaan ak téere buñ naan ruuxul maani bu imam alusi safwatu tafasir tafsirul qurtubi tafsiru ibnu kathir tafsiru jalalayni tabarakallahu tafsiru siidi qutub fi zilaal alquran tanwirul maqba fi tafsir ibn abbas tafsiru tabari tafsirul manaf ak téere bi naan al ibris bu ahmad mubarak di nekkali jaar jaar ak waxu cheikh abdul aziz al dabbaax ibn masud al dabbaax yi yi nga téere yëpp ay yu ndaw ay islamiyat yu aju ci saar bi bu ci nekk yër nañ ko la lañ ca wax ñu jukki leen ko tabarakallah ngir ga dara bañ ci nekk suñu waxu bopp waxu nit wante waxu nit yàlla yi waxu saalixiina yi waxu borom xam-xam yi waxu saxaaba yi nga xam ne ñoo tànq si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu jukki indi leen ko lii daal tabarakallah ñoo ñaan yàlla yal na ko yàlla jubal yal na ko yàlla leeral yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla gërëm tafsirul an suratul ankabut makka la wàcc ëmb na tisaa wa sittuna aaya soixante neuf aaya alquran mooy juróom benn fukki aaya ak juróom ñeent nañu leen laaj borom sakkatu tafasir cheikh aliyu assaabuni mu présenté yu saar bi loolu mooy tax soo fi jógee soo mënul tëri saar bi ku la waxati suuratul ankabut dara ni ëmb na nangam ak nangam ak nangam ak nangam mu ni suuratul ankabut makiyatun wa mawduuha al aqida fi usuliha al kubra al waxdaaniya wal risala wal baas wal jaza wa muxwaru suura al karima yaduuru xawla al iman sunnat al ibtilaayi fi hadihi al xayaat لأن المسلمين في مكة كانوا في أقصى أنواع المحنة والشدة ولهذا جاء الحديث عن موضوع الفتنة والابتلاء في هذه السورة مطولا مفصلا وبوجه خاص عند ذكر قصص الأنبياء سورة العنكبوت عنكبوت موي في جارغون سنيكا خامغول كون موي سورة ني امي قران ترادوي موي سورة l'araignée war nañu xam moom lu tax yàlla tànn araignée jargoñ ubbe ka saar kooku lu jar xam la suñu ci sore insha allah aywa suutu ankabut nee na makka la wàcc saar bi mi ngi ëmb idée essentielle bi idée générale bi mooy mbiru pas-pas pas-pas daf pas-pas les principes fondamentaux de la foi daf yi nga xamante ni moo war nekk ci nit pour ñu ni ci gëm na yàlla mooy wéetal yàlla mooy gëm yeneen yi bu yàlla mos yónni alayhim salaam ba ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam gëm dee gëm dekki gëm ne suñu dekki yi yàlla dañu fay kenn ku nekk loo liggéeyam ndax am nañu gëm yàlla kenn la gëm nañu yàlla moo yónni yeneen yi alayhim salaam wante gëm yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu gëm gëm yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wante gëmuñu dekki gëm nañu dee nag te pour ñoom fas fa dee alors jeex na nan la ñu di nekkee yàq tey nekk suuf xëy suba dekkuwaat nekkaat nit mënu ko dégg seen bopp donc loolu ku gëmul rek sa liman def na ku gëm ba foofu te gëmu daal daal dekkiwaat yàlla fay la loo mësul liggéey ci kaw suuf ci sa gëm def kon yii ne mooy les principes de base yi nga xamante ni ku mu nekk ci yow suñu wax ni gëm nga yàlla gëm it sunnatal ibtila yi mooy aada yàlla ci nattu jaam yi yàlla dafa am sa la loi divine ci jaam yi mooy dafa leen di natt loolu nit koor gëm te saar yi doole saar yi ci loolu ci loolu la nekk ku gëm nattu situation mëntee sa kanam tabarakallahu ngir yàlla ñëw ci nga xam na nga koy muñ mu ni ndax jur yi ci màkk dañu nekkoon jamono di dund xeetu xeetu mbugal sax lañ ko mën tuddee xeetu épreuve xeetu natt yu metti ba yàlla indi saar bi tabarakallahu ngir wan leen ni lii natt yooyu mën a yàlla la soob ak nan lañ ko war a muñe ndax fay nga nekk seen kanam di leen xaar ca la nekkee nag ci biir saar bi xista yonent yi alayhim salaam yu jiitu danañ ko egsi léegi tabtadiu sura al karima bi hada al badi sarix alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ne sarba yi tàmbalee ci waxu yàlla bu leer bi alif lam mim ahasiba annaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndax ñi ñi dañu yaakaar yi dañ leen di bàyyi rek ku ne naan gëm naa yàlla te yàlla du nag doñum googu rek mënul nekk loolu la saar bi ubbee ubbee koo mu ni sarba yi tàmbalee ci ma ne an fariqi min annaas يحسبون الإيمان كلمة تقال باللسان فإذا نزلت بهم المحنة والشدة انتكسوا على جحيم الضلال وارتدوا عن الإسلام تخلصا من عذاب الدنيا كأن عذاب الآخرة أهون من عذاب الدنيا ñi dem ci nit ñoo xamante ni su ñuy gëm nañu yàlla seen lam na yem su yàlla ñëwee ak ay nattoom ak ay épreuve am di seen ndax sa gëm yàlla boobu dëgg la ci yow su dee nag dompee domp gu sew ba mu wokk na rek dañu daw weddi fekk mbaa ñu génn ci génn diine ji mel na ko soo génnee diine ji yaa ngi daw mbugalu adduna ci yaakaar yi mel na ko yaakaar yi mbugalu adduna moo gën waaye mbugalu alaxira xam nga kii réer gu rëy la koo xam ne soo yàlla ci génnee bu ndaw rek nga daw génn ci génn ci diine ji affaire bi dafa compliqué taw mel na ko mbugal li nga daw ci adduna moo gën waaye mbugalu alaxira ci sa génn diine jooju moo lay jógal mbugalu alaxira ci mbugal alaxira moo gën a garaaw yal nañ um fi umpal ñu wa tamdi sura tataxaddat an mihnati alanbiyai wa ma laaqu min shadaid wa ahwal fi sabili tabligi risalati allah badan bi qissati nuux ثم إبراهيم ثم لوط ثم شعيب وتتحدث عن بعض الأمم الطغاة المتجبرين كعاد وثمود وقارون وهامان وغيرهم وغيرهم sar ba ngi dem ci biir sar bi yàlla ngi wane di jàngale mehnatul anbiya yi yeneen ci alayhim salaam épreuve yéen yàlla jaaral ci ay natt yu metti di daje ak moom ngir lan rek jottali yóbbante yàlla pour jottali jottali yóbbante yàlla rek pour ñu wéetali yàlla pour ñu gëm yàlla rek ilaa faliyu ko yar tel na ay nax yu metti xas nañu leen tuumaal nañu leen ŋàññi nañu leen dóor nañu leen torture nañu leen ngir ñu wax ni yàlla moo yónni xam ngeen di metti na yàlla tàmbale ko nag xissatu nuux alayhi salaam mi ngi ci xissa ibrahima alayhi salaam mi ngi ci xissa luut mi ngi ci ak ak ak ak waa xeetam xissa soxay bi mi ngi ci yi la yëpp tabarakallahu par dana ko nettali tagg nag ñoo xamante ni peuple yi nga xamante ni dañu wane woon saggante wane kàccoo wane ñàkk nangu leen ci alayhi salaam ba yàlla jaar ñoom ci jëtu mbugal le peuple aad peuple samud ak ku mel ne que Qaruna ak Haamana ak ñu mel ne ñoom fa yàlla jaar ak ñoom gannaaw ba ñu xeexee yonent yi alayhi salaam wa fi qisati anbiyaa yi durusun min al mihan wal ibtilaa tatamassal fi faxaamati jahdi wa daalati xaqila fa haada nuux alayhi salaam يمكث في قومه تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله فما يؤمن معه إلا قليل سربان إندي لسو bi ñu war jëlee ci épreuve yi yi yàlla di teg ak natt yi xool yonent yàlla nuux alayhi salaam xeetu torture ak lu ñaaw lu nekk lu ñàkk kersa kañ lañ ko ci biir wooteem lala doy koo xamante ni dund na neuf cent cinquante ans yonent yàlla nuux alayhi salaam neuf siècle neuf cent cinquante ans mooy mille ans yu manqué ñaar fukki ñaar juróom fukki at di woote ci yoonu yàlla lu néew a néew a néew a néew a néew ñoo ko wuyu ba si njabootam sax am na si ñoo xamante ni dañu ko gàttaay dem seen yoon kooku metti na xam ne mooy neuf cent cinquante ans ci woote sunu yàlla dimbaliwul mais nga bàyyi baa nga daw baa nga gedd boole ak loolu si torture wa hada abul anbiya ibrahima alayhi salaam yuxaawilu hidaayata qawmihi bi kulli wasilatin wa yujaadiluhum bil xujjati wal burhan fa ma takuna natija illa al uli wa tughyan ibrahima alayhi salaam bàyyi yonent yëpp alayhim salaam xeetu woote wu nekk ak ak ak diplomatie woo na ko waa xeetam ku teg nañ ci yoonu yàlla luñ ko fay qaal uqtuluhu aw xarriquhu fa anjaahu llah min annaar lan lañ ko fay lu dul woote naan lak lakkale ko dugal ko ci biir safara namrud alayhi namrud moo ne ibrahima lañ ko dugal ci safara pour lakk ko pour torturer ko yàlla yebal jibril alayhi salaam ci saat mu jóge àjjana ni ko yàlla naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim yow safara seddal guy te nga jàmmal ibrahima bu ko lakk ci de yàlla mi ñuy wane aussi ni natt bi lu mu koor koor koor fu mu méttee rek yàlla ngi taxaw ndax diggante xàcc bi dóoru yërmale yàlla ngi safara soos lu mu tàng tàng tàng su koy yërmale yàlla jaaxoon di adduna tukki wante yàlla wane ne mooy borom safara mooy borom àjjana mooy borom seddaay mooy borom tàngaay ba ñoom indee seen pexe dugal ibrahima alayhi salaam yàlla indi pexe mit yàlla safara maa ko moom safara yi dafa digal bu lakk ibrahima keroog ci buy loolu it mi ci biir saar wa fi qissati luut yadharu tabajjuj bi razina duna xajalin aw xaya saar bi nettal na it qissa yonent yàlla luut alayhi salaam nañu ko seeñale ñàkk teggin ak ñàkk kersa ba mu leen woowee ci njub ñëpp dëmmooyu ko dem ca mbon saar bi lu yooyu la ëmb lan moo tax na ñu tuddee ko suratul ankabut li ann allaha daraba al ankabut fiha masalan lil asnaamin munxabita wal aliha al mazuma masalu alladina ittaxadu min duni allahi awliya كمثل العنكبوت اتخذت بيتا saar bi tudd ankabut suur ci jargoñ yàlla subhanahu wa taala dafa misaal jargoñ yaakaar naa jargoñ amul lu gën a woyof soo ko dee pesé ci balance jargoñ bu lu mu rëy rëy ndem dana mesuré zéro virgule un gramme dana ko mat borom bi dafa mel na kuy mokki mushrikuuna yi di doon weddi yàlla di ko bokkaale bi weddi yonent bi alayhi salaam ak yonent yi jiitu woon na leen yéen yi nga xamante ni da ngeen jël ñeneen defee ne yàlla bàyyi fi yàlla bi di sàkk ñooñu yéen ñu mel ne ku ci jargoñ bu tabax kër këru jargoñ mooy lan lëng lënd moom woyof na de këru jargoñ amul fondement këru jargoñ étage ba lu mu for for soo ko yaay soo ko njàllu ëppee mu daanu fay benn bant bale car bant bale mën na ko daaneel mooy yàlla leen woni taxaw leen ci dara seen yàlla yi amul benn fondement seen ngëm gi amul benn fondement dafa daanu ak n'importe quelle heure te du leen jëriñ dara donc dafa ñëw en même temps di leen mokke waale suur ci jargoñ inna awhana al buyuti la baytul ankabut yàlla nee na ci alquran nee na kër yi gën a ñàkk solo gën a woyaf gën a néew doole gën néew fondation mooy këru jargoñ mooy këru jargoñ way lu ko nit doyee donc ñi dem nag yàlla yebal ay nitam ñu indi lekkru yàlla bi ngeen bàyyi fi ñooñu xeex leen tabax ay biniga ay weñ ak ay yu kenn xamul def ko yàlla yàlla nee na ñooñu ñu ngi mel ne jargoñ tabaarakallah bu jël jargoñ këru jargoñ dëkk dënd looloo tax saar bi tudd la ankabut lan moo tax saar bi wàcc abu saïd saadi ibn abi waqas radiallahu anhu ne moom moo tax saar bi wàcc wala lenn ci moom bokk ne dafa nekkoon koo xam ni doomu yaay la dafay am ku ñu nekk doomu yaay jege seen yaay lool lool lool lool lool lool lool lool baax na wante su ëppee baaxul ndax su ëppee ñëpp doomu yaay lañu mais su ëppee ay ñun jiw doomu yaay la boobu am na lu ci nekk lu ëpp loo xamante ni jaaduwul ñëpp yaay leen jiw mais ku dem ba ñaan la doomu yaay boobu tabarakallahu daal liri nga boo xamante ni tëng mag dem ba mag tëng mag saadi nee na moom doomu yaay la woon wante bi mu jébaloo ci lislaam yaayam dugul ci lislaam yéen su ñëwee rek kàbbar julli julli julli yaay ji di ko xool ba mu yàgg yaay ji ni ko saat li ma la gis eri ba def lu mu doon daa ko bàyyi de soo ko bàyyiwulee naa toog fii dootuma lekk dootuma naan ba xëy suba dee ñu ni sax dama war a yaayam te soxna si commencé grève de la faim benn fan lekkul naanul sax du teewul ñëw na julli julleem toog ñaari fan soxna si lekkul naanul ñetti fan soxna si lekkul naan saadu ñëw ni ko yaay maa ngi lay xamal ni sa bakkan bii soo amoon téeméeri bakkan bés bu nekk benn xëy dee ëllëg beneen xëy dee ba yépp jeex du tax ma bàyyi sama diini ji ma dugg ni ko yaay soo ma bëggee bëgg la ma li ma nekk kon soo dee yaree sa bopp booy boo nga lekk booy boo nga naan du tax mu bàyyi diine ji ca la yàlla indee alquran aayam boobule nga xamante ni nii naan suñu wayu jur yi dina woo ci lu neexul yàlla na nga leen fa bàyyi te dem ca la neex yàlla donc sa wayu jur lu mu baax baax lu mu la bëgg bëgg bëgg bëgg su demee ba di la woo ci lu neexul yàlla baka fa te def la neex yàlla loolu yi tabarakallah saad dana ko développé kon saad ibn abi waqaas tabarakallahu bokk na it ci ñi tax saar gi wàcc léegi nag ñoo ngi dugg ci tàmbale saar gi baada bismillahi rahmani rahim alif lam mim axasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun alif lam mim du moo jib de waaw lan la borom xam-xam wax ci alif lam mim اختلف أهل التاويل في الحروف التي في أوائل السور borom xam-xam yi dañu am wuute ci baat yi nga xamante ni ñoo nekk ci njëlbeenu saar yi baat yi mel na alif lam mim wala alif lam ra wala alif lam mim fa wala kaaf ha ya ayn qaaf wala qaaf sin mim wala xaam mim wala xaam mim ayn sin qaaf baat yooyu de ñëpp tase woon ci alquran borom xam-xam yi am na ci ñaari kuréel ñii nee nañu yooyu de baat bu ci kenn dugg bu kenn jéem a xam lu mu firi ñeneen nag am nañu ci ay firi ñu ci indi na ngeen xool ñaari kuréel yi fa qaala amir saadi wa sufyaan althawri wa jamaa min almuhaddithin هي سر الله في القرآن walillahi fi kulli kitaabin min kutubihi sirrun soxna yu baax yi bàyyi nañu may déglu bu baax yii lay tabarkalla bëgg nañu ngeen xam ko te ngeen dégg ko yéen ñëpp ñu am itte ci seen diine ngeen ñu am itte ci alquran ngeen ñu bëgg xam ngeen kon yii aussi waratul nekk ci ne ay kumpa war ngeen ko xam ba kenn ku ne su sa njaboot ñëwee ñi la yaay dafa mel alif laam miim nga ni ci ah man de déggoo naa ñu ni lii la borom xam-xam yi wax ci alif laam miim nee nañu borom xam-xam yi nee nañu sirru yàlla la ci alquran mooy ngóol la bu yàlla dë dëxëñ ci alquran ndax téere bu yàlla mos a yónni am na mbóot yu si yàlla def muy fariya min almutashabi bihi alladi farada allahu taala bi ilmihi wala yajibu an yutakallama fiha mu ni sirru la boo xam ni dafa wane wéetal yàlla gi ci xam ko moom kott xanaa nag la waaja waxoon kay jàngale sëriñ bi dafa jàngal taalibe bi jox ko sirru jox ko sirru mu dem taalibe bi diir jamono dellu si ni ko sëriñ man daal def naa nangam def naa nangam wante yàlla liggéey gis man gisuma ko sëriñ bi ne ko ah jox naa la ah dee tey wante joxuma la dee dee bi sëriñ bee ko moom du dëgg du la ne alif jox la baa jox la tay am na loo xamante ni daf koy bàyyeel boppam du la jox lépp nag yàlla subhanahu wa taala su ñu joxee alquran yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko lépp xam na loo xamante ni moom kottaka jagoo na moom moo ko moom lu dëttul lu lu mën nangu la nekkoon yellul ci jullit yi ñu di sax addu ci loolu buñ sax jéem a commenté nañ ko yem loolu borom xam-xam boobu wax ni walakin numinu biha wa naqraw kama jaa li ñu war daal mooy ñu gëm baat yooyu ne jàng ko li mu dikkee buñ sob ko lañu ñi ko wax bokk na ci abubakar sadiq radiallahu anhu ali ibn abi talib radiallahu anhu ñoom ci boobu tendance lañu nekk wa zakara abu lays assamarqandi عن عمر وعثمان بن مسعود وعثمان أنهم قالوا الحروف المقطعة من المقسوم الذي لا يفسر إذن صنعي تدين أنا عليهم رضي الله عنهم نينا بريو يا تقري ألف لام ميم نينا من المقسوم الذي لا يفسر ne dañu bokk ci yàlla nëbb kenn du ko firi nee na kenn du sax jéem xam lu ci yàlla namm ñoom sañ nañ ko wax ñoo toppoon seen bi sallallahu alayhi wasallam ay xalifaam ñeneen ñëw ni inna allaha taala anzala hadha alquran alquran فاستأثر منه بعلم ما شاء وأتبعكم على ما شاء فأما ما استأثر به نفسه فلستم بنائله ولا تسألوا عنه وأما الذي أتبعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به وما بكل القرآن تعلمون ولا بكل ما تعملون تعلمون تعملون ñii nee nañu yàlla dafa indi alquran ba noppi dana lekk boppam ci loo xamante ni moom kott moo ko ci xam am loo xamante ni dëpp ubbi may ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko nag tànnal ci ñi saxeet ñoo xamante ni daana xamal nangam ak nangam ak nangam kon mu ni kon ñun am na ci yoo xamante ni bu ñu ko sax jim lakk nañ ca yem ca fa borom xam-xam yem ak ñun ndax du lépp alquran la ñu xam te it du lépp alquran la ñoo jëfe ndax yu bari xam nañ ko te jëfe wuñ ko kon it suñu xamoon alif lam mim li muy firi te jëfe wuñ ko moom dara yem ndax du lépp alquran la ñu jëfe ci ñu santaane bàyyi na lool wante ñi kaa jëfe ñu néew lañu kon ku tedd saxaabu tedd an abdullah ni ko lañu war jëfe wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beni ma amana muminun afdal min imanin bi xaybi ne gëmu julit ba ca gën ba ca gën gëm mooy gën gëm kumpa gëm kumpa mooy lii nee nañu yàlla nee na alif la mim la mu ca nam moo ko xam gëm naa ko jeex na je ne cherche même pas à comprendre ndax wallazina yuminuna bil xayb la yàlla wax nee na ñi nga xam ne dañu gëm kumpa ñooñu seen liman dëgg na ndax gëm yàlla te gisuloo ko gëm malaayika te gisuloo ko gëm jinne sax te gisuloo ko tabarakallah war nga gëm it di yàlla bind te comprendre loo ko li nga gëm yàlla ko wax mu seet à comprendre kon gëm boobule bokk na ci xeetu gëm yi gën a am solo te lii dafa marqué aussi mandarga alquran ci waxu yàlla la du waxu nit ndax ku doon tricher mbaa ngay jéem waxi julli bi loo créé créé créé soo créé ba créé saar bu mel nii lii mënoo ko firi kuy bindi français ALM lu muy tekki dara ban tubaab rek ban écrivain ban penseur moom tey téeram bind rek binde IKG wala FLN te doo ko firi dañ la wax moos ni la waaw professeur waxuñu lii loo ci bëgg wax kon yàlla subhanahu wa taala am na secret yoo xamante ni loolu nag moom moo ko moom kenn ak ci ñeenti borom xam-xam yi indi beneen waxaat beneen xalaat ni ba yajibu an nutakallama fiha an nutakallama fiha wa naltamisu lwafafaid allati taxtaha walmaani allati tataxarraj alayha yeneen borom xam-xam ni dafa jaadu dafay jaadu dafa war ñu waxtaanee baat yooyu de wax alif laam miim lan la firi wax ni war nañu génne maani yi yàlla ëmb xam nga lii yéeme na ñii nee nañu bu ci kenn wax ñii nee nañu am na lu ci yàlla nam fexe leen ba firi ko mais bu ci nekk rek tegu na ci teguwaay ndaxte ixtilaaful ulama yi rahmatul wuute borom xam-xam yi wax nañu ni am na xadis boo xamante ni ñu koy askanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wuute borom xam-xam yi yërmande la ñooñu ne ñi wax ni dañoo firi firi firi baadi yi ki ci jiitu ibnu abbas la radiallahu anhuma yaakaar naa képp kuy jàngkat ba ngay taalibi ku miin jataayu borom xam-xam buy firi alquran mënu ko firi moos ba daaneel ci turul ibnu abbas radiallahu anhuma ibnu abbas dafa doon ndaw lu jege yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may ko xel lool ak cawarte lool ak fas-fas lool yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi téye ci mbagg yi ni allahuma faqihu fi diin wa allimhu taawil yàlla mu ubbil nga xam-xamu diine ak xam-xamu taawil alquran yàlla dafa ko ubbee ko ibnu abbas doon na koo xam ni bokk na ci ñi ëpp ci ñi jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay firru yoo xamante ni lenn ci ay saxaaba xamuñu loolu kon soo déggee abubakar sadiq umar bun xataab osman bun affan ali karamallahu wajhahu wax ni bu kenn firi baat yi fi ñëwee xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu abbas ñëw ni nañ ko firi kon ibnu abbas amoon na cër foofu la yaakaar naa ñëpp xam nañu ci rañaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaane ba dellu ci gis yàlla dellu ci faja jotagul ba mu ko nettali Aïcha radiallahu anha def ko laaj ndax gis nga yàlla Aïcha ni ko déedéet fu mu ko laaj Aïcha ni ko déedéet ndax moom ñu naan siru la boo xamante ni kenn ko wax ñëpp wante wax na ko Ibnu Abbas bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna sittuna Aïcha ku ko jub ni ko sallallahu alayhi wa sallam gis na yàlla mun nañ gisu ko gisu ko ba mu ñëwee ci Ibnu Abbas ibnu abbas ñu ko gis na yàlla firil ko mbir bi naka la demee jaaroon nañ ci sa gàmmu la wante kon pour leen ni ibnu abbas radiallahu anhuma fu mu jaar yenn sa sallam lu mu la wax rek war nañ ci bàyyi xel kooku nag moo wax ni dafa yellu ci ñu firi baat yi xam lu mu ëmb ne ann al xuruf al muqattaa fi alquran ismullahi al azam ibnu abbas nee na baat yooyu ngi dégg ci alquran ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را حاميم كاف عين صاد حاميم عين في القاف نون نينا نيو أمب اسم الله الأعظم في القرآن تر يالا بماغي يالا أمنا 99 نو أمنا بنين boo xamante ni tur yooyu yëpp boo reseen la ñu jël coppati ca muy ismullahi azam nee na moo ëmb baat yi benn ibnu abbas ne radiallahu anhuma ba tey nee na alif bi nee na al alifu min allah mooy alifu allahu alifu allahu bi mooy alif mooy alifu alif laam bi wal laam min jibril laam gi laamu jibril jiim ba ran yaay laam boobu le mooy laamu jibril wal miim min miimu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee miim gi dafaa junj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee alif gi allah la laam bi jibril alayhi salaam ñiim bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la kii amatul ak sant ibn abbas moo ko wax te lu mu wax ñu ngi ko jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey mu ni wal alif miftaxu ismuhu allah wal laamu miftaxu ismuhu al latif wal miimu miftaxu ismuhu muhammad mu del soit ni alif bi mooy alif bi ubbi turu yàlla bi allah nee laam gi moo ubbeeku turu al latif turu yàlla ba tey al latif gi ci borom ñeewental gi wala miimu miimu muhammad sallallahu alayhi wa sallam alif laam miim beneen alif gi allah la laam gi jibril la miim gi muhammad sallallahu alayhi wa sallam la bi nee na alif gi allah la laam gi latif la miim gi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu mu ci mën ci doon rek yii ñett yëpp sirru la ndax yàlla sirru la jibril sirru la muhammad sallallahu alayhi wa sallam sirru la allatif nag ñëpp xam nañ ni sirru bu màgg la mooy sirru ñeewante yàlla ci jaam yi mu delloo xar ibnu abbas radiallahu anhuma ni alif lam mim bi maana ana allahu aalam nee na bi maana yàlla moo di wax maa di yàlla maa leen gën a xam lépp ci seen bopp ne si yàlla nee si yàlla nee alif laam ra mooy ana allahu ara moo di maa di yàlla maa ngi janoog yéen seen biir seen biti alif laam miim saaf bi maanaam ana allahu afdal man a yàlla maa leen gën a xam te maa leen gën yéen ñëpp yii day tabaraka allahu ku ni amul firi sañ nga ko wax deteg ko ci xam-xam wante ku ko firi it jële ko ci ibnu abbas tabaraka allahu sañ nga ko teg ci teguwaay bu mu ci mën ci doon yal nañu loolu jëriñ ñun ñëpp limaamu tirmidi radiallahu anhu sol na ci xadis ni inna allaha taala awdaa jamia ma fi tilka sura min al axkaami wal qisas fi lxurufi alladi ذكرها أول السورة ولا يعرف ذلك إلا نبي أو ولي ثم بين ذلك في جميع السورة ليفقه الناس limaamu tirmisi nee nee na yàlla subhanahu wa taala dafa ndolale lépp lu nekk ci saar bi ci ay atte ci ay xisas ci ay nettali ak ci ay xuruuf nee ñi ngi ko nettali ci xuruuf ci xarif jëkk yi saar bi yëpp su dee alif laam miim saar bi yëpp la mu ëbb ci ay xisas ci ay nettali yàlla mu ko dëxañ ci alif laam miim mu ne benn pot secret boo xamante ni daf koy wax digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lim lees na ñu ñoo ko moom li ñu ko firil mais yàlla su ne yonente sallallahu alayhi wa sallam alif laam miim rek lépp la ca saar la ci xeetu xam-xam xeetu taawil xeetu rewaayat wax na ko allahu akbar li ci des nag mu firil ñu ko faram-fàcceel ñu ko ñun jullit ci pour ñu mën ko teg loolu imaamu Tirmisi wax nañu laaj keneen Cheikh Abdou Aziz Dabbar radiyallahu anhu borom Libri kooku nitu yàlla la nit ku yéeme la abdul aziz ibn masud ad dabbar dana doy rek cheikhuna cheikh haj malik radiallahu anhu naw gi mu ko naw nettal nañu ci lam ñu mag ñi dañu ko dégge ñu ni sidil haj malik radiallahu anhu benn weeru koor dafa jël téere hybride di ko jàng ni weeru koor gi daal mu lay wéttali ko man noonu lañ daan def ci démb dañoo jël benn téere weeru koor fexe ba jàng ko wala nappar ko ah nee na fa mu nekk ci liggéey fa lañ ko fekk di ko yëgal ni soxna si yàlla may na ko doom bu góor cheikhuna xaaj malik radiallahu anhu ni kii de du ma ko tuddee kenn ku dul abdul aziz dabbaax bii may jàng ci téere bu ràññeeku bii nga xamante ni nit yàlla bu kéemaan la kooku mu lañ tuddee xalifa bu tedd bi fi génn àdduna Cheikh Abdoul Aziz si radiallahu taala anhu al Abdoul Aziz ad-Dabbaax bii lañ ko tuddee Ibn Mas'ud ad-Dabbaax yàlla may nañu ci barke suñu sëriñ ñu sub bàmmeelam ca faat dañ ko dañ ko tëral radiallahu anhu mu nit yàlla boo xam ne dafay yéeme jàng alquraanam sabbix isma la yem ba suuratu naas wante am këshfu këshfu mooy gis dafa gis mën na toog fii mu toog su nit jàppee mbaa mu sangu ndox mi roga mën na la wax ban xeetu bàkkaar moo gën ci yow ci borom ay su nit waxee arab ak alquran dana xàmmee lan moo ci alquran ak dusul alquran su ñëwoon ci kanamam wax hadith dugal ci alquran dañ ne lii alquran la lee hadith lii hadith la lee waxu nit la ndax nee na suñu ci dee wax sa gémmiñ am na leer bu cee génn di ko wan bi leeru alquran la bi leeru hadith la kii nitu yàlla bu yéeme la jàngam sama si dafa naa sa yam wante jamonoom masala diine bu ñu yëkkati su borom xam-xam yi lottee réunion ci keppaaram laaj ko mu tontu leen ci sàppi bindul benn téere wante taali bi mu daan àndal Ahmad Ibnu Mubarak di borom xam-xam koo koy bind ay waxam ba sëriñ ba génn àdduna mu def ci recueil muy al ibris dafa laaj sëriñ bi des ni ko loo xam ci bari yi ci alquran alif laam miim ak yu ko nur mu ni ko yooyu le ñaari nit kot ñoo ko xam ci kaw suuf ñaari xeetu nit benn bi moo di yonent yi alayhim salaam ak wëllu yi nga xam ne yàlla may na leen ñu sëpp lawxul maxfuus te moom dara bokk fa malaaka yi di bind xalima ba di bind alquran ak secret yàlla yi am na wàllu yu yàlla may ñu sëpp lawxul maxfuus teg ci seen bët Abdul Aziz Dabakh boobu ca la bokkoon wala yi nga xam ne yàlla may na leen ñu di assisté diwaanu awliya yi guddi gu yàlla sàkk réunion réunion wala yi trois heures du matin guddi gu yàlla sàkk ca si dërëtul mun tëjee yenn saa son di ko présidé nee na moom ca la bokkoon wala yu yooyu yàlla may ñu mën xam firi firi firi firi baat yi taalibi bi ni ko waa sëriñ alif laam miim bi ci baqara ak alif laam miim ba ca sa sajada ak alif lam mim bi ci am kabut ndax ñoo bokkul firi mun ko benn bokk si ak moom firi firi ci lii xam nga yéeme la mu ni ko benn bokk si ak moom morom firi ni ko benn bu ci nekk code secret la boo xam ni mi ngi firi la ëmb la saabu ëmb ci ay xisaf ak ay riwaayaat diggante yàlla ak yonente sallallahu alayhi wa sallam wante moom yàlla mayoon na ko mu bokk ci ñeen assisté diwaan awliya yi tabarakallahu nee na ak sëb lawxul mahfuus ba saar ba fa ñu ko bind ci lawxul mahfuus nee na ak côté bind nañ ci firi saar bi yàlla wan na ko ko mu delluwaat ci li imaamu Tirmisi wax radiallahu anhu ni lépp loo xamante ni ëmb na ëmb na firi saar bi nee na mii nekk ci ñetti baat yooyu alif lam mim kot alif lam mim alif lam mim ram donc saar bi soo ko explicité ba noppi yow sa bopp jàppal ni yàlla dëxëñ na ko ci ñetti baat yooyu kon fa tabarakallahu cheikh abdul aziz dabaari borom may la boo xamante ni ku ngërëm yéeme la muy wane ni di dëggal li ibnu abbas wane tabarakallahu ni yàlla am na ñu mu wan ci kii maanaam tabarakallahu tekkiwul nga di xalifa tekkiwul nga di nga di premier muqaddam déedéet yàlla mooy am ñu mu jagleel dalika fadlullah yuti man yashaa ni mu jagalee ibnu abbas ci biir saxaaba yi noonu la jagalee ay wàllu yëm abu aziz dabaax ak ñeneen wan leen tabarakallahu signification baat yi loolu laa bëggoon indi rek ci anum tënk ci aju ci alif lam mim ndax suñ ko toppee yaakaar naa ni danañu ko yenn léegi nag alif lam mim ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun أي أظن الناس أن يتركوا من غير استئذان لمجرد قولهم باللسان لا ليس كما ظنوا بل لا بد من امتحانهم ليتميز الصادق بالمنافق من المنافق نحي الله سبحانه وتعالى dafay bàyyi nit ñi rek ñu di wax naan gëm nañu yàlla seen lam yi sans que yàlla nax du leen ci seen limaan googu de yàlla foog mu nattu nit ñi pour xàmmee ñi dëggu ci seen liman ak ñi nga xam ne ay nafiq lañ bii gerte rek bii aaya rek doy na leçon wu atu yàlla doy na leçon wu bindu doomu aadama ñu xam ni état kuy jullit tu es parti ku am naq soo ko gëmee da ngay noppal sa bopp ku gëm naq ku gëm naq da ngay noppal sa bopp doo jooye de doo saalite de doo tarxi doo wax lu ñaaw doo xuloo doo gedd doo def lu bon da ngay def sa diñ xam ne yàlla la natt kon natt gëm natt ci gëm la bokk téere baa ngi nii jeex na moom la yem fii léegi léegi léegi nan la ne def xëcc bi du ko waral waa Makka jamono yonente sallallahu alayhi wa sallam am ci benn kuréel ci saxaaba yi mushrikuure yi ak kuffaaru quraysh yi dañu leen sonala sonala sonal ndax li ñu gëm yàlla mais xeer sonal boo xamante ni mos ko dund Ammar bun Yaasir dafa gëm yonente sallallahu alayhi wa sallam jébul papam ñëw dugg ci lislaam yaayam dugg ci lislaam ay rakkam ak ay jigéenam ak seen waa kër yëpp ak mbokk yi monsieur Touré ñëw fekk leen ak ak kufaaru Quraysh yi def leen takk leen guddi taal safara ci ay wañ leen lakk leen lakk leen fekk leen torturé ndax li ñu dugg ci lislaam kii kan ak extrému man julli seen dundagum lii dem woo yonente sallallahu alayhi wa sallam ca këram ni ko kaay xool ñu def ci waa ji ba nga xam ndax ndax mën nga ci dara yonente sallallahu alayhi wa sallam ñëw janoo ko Ammar bu Yaasir ak ay mbokkam ñu leen di mettal ci mënu ci dara mënu ci dara léegi mënu ci dara ñu ko waxata yàlla yonente ne wallu sallallahu alayhi wa sallam ni leen sabran ya ali Yaasir inna maw'idakum aljanna mënuma ci leen lu muñ leen rendez-vous bi du fii àjjana la su ngeen ko muñee insha allahu taala su ngeen àggee àjjana ay xam ne jaaroon na ko jeex na daal di wañ dem yoonam ak xol bu tooy waa ala yaasir dund xol bu naqat xam nga toog ñu torturer sa papa torturer sa yaay ak sa ay mbokk takk leen te mënoo ci dara dangaa jooya jooya jooya jooy ba doo amati xol bëggatuñu lekk bëggatuñu naan découragé ci àdduna ci loolu circonstance ci la yàlla indi aaya bi ahasiba annaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndax ñun dañu yaakaar ni dañ leen di bàyyi rek naan gëm nañu yàlla sans yàlla nattu leen foog mu nattu leen kon nag nattu la ci sa ngëm nattu la ci sa diine nattu la sa taxawaay ci lislaam nattu lépp na nattu nguur gi nattu la ci sa wayjur nattu la ci sa wayjur bu jigéen nattu la ci sa borom kër nattu la ci sa ay soxna nattu la ci sa njaboot nattu la ci sa ay dëkkandoo nattu la yow ci sa bopp nit ku ne yaa ngi woyaare loo xamante ni nattu la na di feebar na di ñàkk wërsëg na di dee na di ñàkk xam na di yu bare yoo bëgg jot te mënoo ko jot nattu la kon lii dana téere kon suñu tàmbalee ci barab bii rek tabaarakallahu julit yëpp am nañu ndëppaay ndax kenn ku nekk jaaragul fi Ammar bu Yaasir jaar ah kenn jaaragul kenn wooteegu si gëm yéen sallallahu alayhi wa sallam ba ñu fekk la sa biir kër mënatu la waay kenn gëmu ko fi sa sëriñ ba ñu fekk la sa kër dóor la ndax danga gëm sa sëriñ bañ dugg la kafa ndax loolu maa ñu lakk la lakk say bagaas kenn egg bu ci fenn te gëm naa ni am na ñoo xam ne suñu leen fekkoon tegeen yeen natt yi seen sër gëm seen sëriñ ñu bàyyi ci sàcc moom la suñu sëriñ daan jàngale ci wàllu tarbiyaam naan sëriñ Babacar Si daan radiallahu anhu am na taaliba yoo xam ni soo leen tegee yenn di tarbiya ñu ne ee jàng agul laa ñaar waay jàng agul laññaar waxu wolof la bu ëmb lu bari laññaar ñëpp xam nañ ko mooy gaaru laññaar wante laññaar mooy tëdd la laññi laññaaral ñu la dëggaate rek taalibe yoo xam ne soo leen tegee dara léegi seen bakkan àndool ñu la xoolal nag jàng agul laññaar nag du jàngal ma rek ba taxanaa nga di ma teg lu mel nii te yàlla moo la ko teg mu dandox naan service dafa diis dañ teg suñu tànk suñu woy su fekkoon sëriñ bu nekk teg taalibeem li ko yàlla teg mu woon nangu ko am ko nangoo gëm naa ne sëriñ du amati taalibi du amati ndax nit ñi noonu la ñu amee seen la nature humaine dañu nanguwul nit mu mënul nangu donc sëriñ bi mooy maslante ak yow di naxante ak yow pour teg la li la yàlla teg te nga waroon ko nangu déew te tey dikkagul dëgg kon nag fitna yi de adduna bi nit ñi bàyyi seen xel seen bopp ni amul kuy dund ci kaw suuf te yàlla du la teg nattu su la ko tegee nag nga delloo sa xel ni yonent yi alayhim salaam ñoo la jiitu ñoo la gën yàlla natt na leen saxaabatul kiram ñoo la jiitu ñoo la gën yàlla natt na leen awliyaawu saalixiin yi ñoo la jiitu ñoo la gën yàlla natt na leen kenn ku ci nekk am na loo yàlla ba wuji sa borom muy natt boo xamante ni taxula sari taxula weddi taxula gaddaay taxula daw nga rek ci diin fekk ni war mel nekk julit looloo ñu war ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أي ولقد اختبرنا وامتحنا من سبقهم بأنواع التكاليف والمصائب والمحن لا أي يلا نقنا تجنا أي أي إبروف خير يرين جيتون تخير تك يوم نتي أي نت أي مصيبة يوم نتي وحمين أي تبتي والمعنى لهم بيضاوي والمعنى أن ذلك سنة قديمة جارية في الأمم كلها فلا ينبغي أن يتوقع خلافه سرين بناي لين جوار جلي موي لي هذا يالا بو ياغلا هذا يالا بو ياغلا بو خامتيني خيت بو نيو دا سي جار amul nit bu ko mën jëcc amul xeet bu ñëw lu xeet ba baax baax lu mu bare borom xam-xam lu mu bare nit yàlla lu mu bare ay sëriñ dañu ñëw seen napp natt ci société ba natt ca nguur ga natt ca njaboot ga natt ca borom kër yi wante kenn ku ci nekk ak sa natt bopp spécial fala yaalaman allahu alladina sadaqu wa yaalaman alkadibin al fala فليميزن الله بين الصادقين في دعوى الإيمان وبين الكاذبين في سنة يلا دي خامي ñi dëggu ñee woote lislaam liimaan te mu dëggu ci ñoom te ñu gëm ka ak ñi woote liimaan ci fekk eggu leen fenn ci affaire bi nekk nag képp kuy woote liimaan ni gëm nga yàlla te gisuloo ko gëm nga yéen fii gisoon te gisuloo leen gëm nga wéetaay bàmmeel gëm nga daa dee gëm nga ni daa dekki te soo dekkee yàlla fay la te yàlla ne la inna allaha maa sabirin yàlla ne la wasiri sabirin yàlla yi ànd ak ñeem muñ te ku muñ yàlla dëggal la xam nga ni kon war nga war nga war nga am napp kon ku nekk si natt déjà rek sa première mbégte mooy inna allaha maa sabirin yàlla nee na mi ngi ànd ak way muñ ñi te natt moog bu ñu ànd natt moog bu ñu ànd su yàlla nee mi ngi ànd ak way muñ ñi kon da nga war a xam ne soo nekkee si natt rek yàlla yi ànd ak yow la taxzan inna allaha maana bu jax yàlla yi ànd ak ñun soo nekkee si natt boobu rek nga muñ ko muñ bu rafet yàlla ni wa bashiri sabirin إن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نانا دغال نا غاي يا خامني سوني نكي تي مصيبه تي ناتو تي تيري تي ñak wërseuk ci ñak dund xifal mara ñak karangi bu ci nek ñi naan ñun daal yalla ñi mom ci lañu joge ci lañu sel yalla neena ñooñu re yalla dana julli ci mom dana julli ci ñoom and ak yërmaleem aduna ak alakhir kon nak dañu wara muñ wante muñu jafe ak ak jafe ak jafe doomu aadama yan nañu yàlla may ndëgër laa yu mujj borom xam-xam yi dañuy wax ni natt xorom la ci dund ji xorom la moo koy pimenté mais dund ji seet leen fekkoon dina amuñ natt lépp marché meer presque examen réussir kenn du entrer hôpital kenn du feebar kenn du opéré kenn lu bëgg jot ko xaalis bu bëgg téye ko amee kon amatul sens kon day neex trop li koy pimenté di ko xoromal mooy muy metti nga am ay défi yooyu relevé di wuti wërsëg di wuti examen di wuti njaboot di wuti soxna di feebar di faju su ko defee secteur yi danañ dund di wuti xam-xam di jàng ak di jàngale ci doon loolu natt yu xorom la ci dund ci di am ay di ak examen di échoué di wuti waat di feebar di tane ñu faj ngi daanuwaat di récité waat di fajiwaat di jaay di perte di jóg a daanu affaire yi maa si tey ëllëg mu dëndam les jours sombres et les jours meilleurs yii mooy neexal adduna bi ah te teewul nag su ma suy jotee ka korite jotee tabaski ñëpp ray xam ñëpp sañ fi ñëpp lekk misu ñëpp lekk yàpp koo tax sa morom rey kontaan te kenn ku ci nekk fomm la fa mu jaar ba rey xaram boobu mbaa sol yëreem boobu kuy bi ko dal dee billaay maa ko wax dara gis koo xamante ne rey na xaram ba noppi mbay na sant dégg naa jéggi xaar mi tiifatu ko di nga coono ji ma teg jéggi xaar mi tiifatu ko di nga coono ji ma teg wante teewul lekk na yàpp et puis tabas ci la kon natt tabas tabas nattu la natt jënd xar njaboot yi wër la indi yëri yi indi nangam indi nangam natt yooyu yëpp tabaarakallaahu ne daa fexe benn bu ci nañ nga génne ko su ëllëgee nga continuer sa vie donc yii tabaarakallaahu mooy adduna donc dañ ko war nangu avec philosophie su ko ñëpp nangoo noonu fitna du ñàkk de man dox dootul bare ci julli ji ci julli dootul bare wax naa leen bis ci benn xutba Seydina Omar bun Xataab radiallahu anhu bi mu nekkee xaadi jamono boo xamante ni Abubakar Saddiq radiallahu anhu mooy mooy amiru muminin Abubakar ne taw na ak yàlla jotul benn benn jugement kenn jugewul kenn ci nit la moo Omar jëkk lii lu xew xanaa mun taw ak yàlla kenn def benn ñaaw tiif bu ñoo jugé Omar jël ay employé am def enquête indi rapport bi ni ko waaw dëkk boo xam ni mag ñi dañu yërëm ndaw ñi ndaw ñi ormal mag ñi mag ñi dañu yërëm ndaw ñi jox leen seen cër mag ñi ormal ndaw ñi loolu laa wax mag ñi yërëm ndaw ñi ndaw yi ormal mag ñi suñu feebaree yi nga xam nga dem seeti ko ku dee ñu ànd gunge ko dem jaale ko séddante teraanga ak yiw ñi am doole am wërsëg wëlbati dimbali ñu neew doole tabaarakallahu bañante amul añaante amul soxla amul ñooñu amuñu soxla ci ata umar société civilisée nga société bu yiw société bu maandu loolu moo war nekk objectif jullit yi dañu war nekk une société civilisée bu ëmb lépp nag warul nekk rek yem ci kabarañ jullit yi ci sar takusan warul yem rek ci weer ko jot na war nañ ko déedéet société civilisée ëmb jikko yu baax ëmb jikko yu rafet ëmb yéeneente jàmb ëmb muñalante ndax muñ ci natt la bokk su la nattoo nga muñ sa mbokk lay nattu nit ku nekk ka nga dendal moo lay teg di la gën a metti koo gis mu am lu ko naqari mbokk ma ko teg da nga war ko muñ doo ko mbokk doo ko dagg sànni kenn du ko orijavel xoos bu rey kenn du ko rey kenn du ko ayibal mënoo ci def dara da ngaa nangu li natt yàlla la ngeen ànd di rafetal ba yàlla soob mu defar àdduna kon yi tabarakallahu dëgg dëgg nañ si ba jële ku ko nanguwul nag mooy naafeq naafeq moom wax waxu fasaad rek waxu fasaad gëm naa yàlla gëm naa yàlla man ah sama ngëm gi nangam nangam mais su yàlla dompee benn dompam rek mbaa benn gajj bu sew rek ñu gis nga salit nga yooxu def yoo xamante ne defagul tabarakallahu ñu ni kii ngëm ji muy woote nekkul ci moom nekkul ci moom am xasiba alladina yaamuruna sayiat an yasbiquna saa ma yaxkumuun ay ay yadunnu almujrimuuna alladina yartakibuuna almaasi walmubiqaat annahum yafuutuuna min cadaabina wa yacjizuunana saa ma yaxkumuun ay biisa ma yadunnuun mu ni ndax kàccoor yi nga xam ni dañu dëkk ci mooy yàlla ak def yu bon dañu defe ni dañoo xisu rek dee sans que yàlla mbugal leen yàlla affaire fekk dara xewul ak ñaaw seen xalaat ak bon seen yox waa lii buñ ko xoolaat da nga nekk société bi su fekkente ni autorité yi it fi nekk seen ay loi yu ñu tëral soo ko jàddee yoon dal ci sa kaw ci ay nit kott leen ñu tëral seen yoon waaye yoru yàlla nag danga nekk ci àdduna rek def lu la neex naan sàngara di sàcc dugg fu la neex gis la neex xëy suba dee rek après jeex na kon mu yomb ci waaw kon ñu nekkoon ci xeet seen bakkan fu ñu jëm kon mu nekk certainement ci ñun ak ñeneen kon nit yàlla yi xeer seen dund yëpp jaamu yàlla bëgguñu dara ci àdduna kon ñun certainement lay doon ci ñoom kon mu yomb toog mbokk yi ñu dafa war yeewu ci àdduna jamono dafa ñu war a yee tey jii dawal ko sa oto bi dawal oto si mbedd yi am na code de la route lu soo oto nooy nooy garab tax am na limite de vitesse booy yem te soo ko dépassé alkaati lii la fii taxaw defante ko ak yow soo ko dépassé gisoo benn alkaati am na lu naan radar radar yaa ilaa gis wëreen gi dëwul waa radar du nit nit moo ko defar samp ko am na radaru yàlla yi nag malaaka yi nga xamante ni ñoo ngi laa ñu ngi ànd yow ci ñaari mbagg bu dégg bëccëg anam malaaka yi nga xam ne ñooy wër adduna bi inspecteur yàlla di ko bindal radar yooyu du ñu leen tiit ragal leen la hawla wala quwwata illa billahi al azim affaire jan jan na tiite radaru yàlla yi nga xamante ne ñoo ngi bind ñoo ngi enregistré ñoo ngi gis dara dara rëccu leen minute seconde ceer fu lëndëm ak fu leer subhanallah al azim waaw su fekkente ni ñun tey jii kenn ku ci def benn infraction loo bi dal sa kaw mbaa soo ko digaalee nit mu porté la plainte yóbbu la tribunal waaw nga jël nag loogu yàlla yi nag di mal ma ne na mu la neexee rek di di def yi na mu la neexee di jombaala rek man ne yàlla daal bu fa nelaw après bu paree mu ne moom laissez passer kon mu yomb lool may kon mu yomb lool yàlla dafa maandu dafa juste moo tax yàlla ni ñu ay ay géej ma yàqumul aka seen ñaaw xalaat aka seen ñaaw njort ci yaakaar yi dañoo def bu leen neex ba noppi rek te dee rek dekkoor mu mu mu passé mënul nekk mënul nekk kon nag li ñu war a mooy من كان يرجو لقاء رب لقاء الله فإن أجل الله لآت وإن هو السميع العليم لما بين تعالى أن العبد لا يترك في الدنيا سدى بين هنا أن من اعترف بالآخرة وعمل لها لا يضيع عمله ولا يخيب عمله والمعنى من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله ويجازيه وإن لقاء الله قريب الإتيان وكل ما هو آت قريب ba yàlla leerale ni duñu bàyyi du bàyyi jaam yi su àdduna rek ñu nekk seen bopp déedéet foog mu am fonction ñu ngi leeral ni kon képp koo xam ni yaakaar nga àllaaxira nga am ca tuyaaba yu màgg ya jëf-jëf yu sell nee na kooku yàlla du niil ay jëfam yàlla du tax yaakaaram lañ ci war dégg mooy képp koo xam ni yaakaar nga ëllëg yàlla fay la sa pay bu rafet nee na nga muñ ci àdduna na nga muñ ci àdduna jaar-jaar yu métti yi na nga muñ ci àdduna nga jihaad ci yoonu yàlla ba taseeg yàlla yàlla fay la muñ ci àdduna nag tekk na lépp mooy la vie est un parcours de combattant àdduna bi jihaad la gës bu yàlla sàkk soo xëyee ba jant soog jihaad la suut tibi ba nga yeewu jihaad la su xëy ba jant soog wuti dépense wuti dund jaamu yàlla fexe ba bañ mooy yëpp jihaad nga tëdd nelaw war rek regret sa nelaw yeewu heure bi nga war a yeewu pour mën jox yàlla la mu moom ci fajar si jihaad la xëyaat dafa la même chose kon bés bu yàlla sàkk de parcours de combattant bu war nekk sa dund bakkan nee na ku defee noonu yàlla fay la sa fay te du tax sa yaakaar nee fa inna liqaa allahi qaribul ityan wa kullu ma huwa atin qarib dajeeg yàlla bi dajeeg yàlla jege na lool borom xam-xam yi ne su yàlla ne mbir jege na xam ne loolu egg egg na ba noppi su ne da ngeen dajeeg man inna daje allahi la atin egg na ba noppi muy fii ñu toog dogalu yàlla mën na fi ñëw ci kenn ku mu ne kenn yéex suñu génnee mën na am balaa guddi mën na am ak ëllëg ëllëg ëllëg donc su yàlla ne inna ajal allahi la aat dajeeg yàlla bi danañ ñëw jege na xam ne ni egsi na ba noppi kon lu egsi ba noppi nag dañu war a waajal loolu jihaad ci sunu bakkan jihaad ci muñ jihaad ci nekk soldaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk soldaaru alquran topp yàlla ci la mu santaane ak muñ wa huwa samiu alim te kat yàlla nee na huwa taala السميع لأقوال العباد العليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة نانا من دق وخجامي خمنا كان حال الظاهرة الباطنة لجام نكي يلا خمنا لو خلاص لو خجوك يلا خمنا يجنا كون يلنا يلا ميني سنو خلي يفي خلاص يرفع am ci ay yéene yu sell ngir yu si yàlla day ñëw ci ñun fekk ñu ak yéene boobu déppoo ak la mu bëgg ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه أي من جاهد نفسه بالصبر على الطاعات والكف عن الشهوات فمنفعة جهاده إنما هي لنفسه إن الله لغني عن العالمين أي مستغن عن العباد لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين يلا نينا سبحانه وتعالى képp koo xam ne xeex nag bakkanam ci muñ topp yàlla ci la mu santaane jàpp te yàlla tere nee na loolu njariñ la ci yow lay dellu ci waat yàlla njariñ la ba noppi amul si benn soxla def ñu teg épreuve yi kay pour mun ñu noppi pour ñu am une bonne natt nag épreuve yooyu foog ñu surmonter leen foog ñu romb leen ak muñ ak ngor ak dignité ak liman pour que ñu mën am kay kon képp kuy xeex sa bakkan ak sa alal sa bopp lay tëj ndax résultat ba yaa kay moom insha allahu taala mooy yàlla fay la teraanga adduna teraanga alaxira ndax yàlla jeexalul dara mooy borom man yi mag yi والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون أي أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح gaa yi nga xam ne dañu gëm yàlla gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëm alquran gëm dee gëm dekk gëm wétaay domel li jëf jëf yu baax ñooñu la yàlla wax ni dana far seen bakkaar far seen ñawteef na mu ko far leen xeet yi leen jiituwoon tabaraka allahu ba noppi nag fay leen gën di fay ci seen jëf yu baax ak seen topp yàlla yenn yàlla wërsëgal la soxna yi xale yi tuuti yi dañu bàyyi xel ci loolu soxna yi ñoo nekk ci biir kër yi te kër dafa metti lépp ngi ci biir suy jaamu yàlla la nga war topp sa ndigalu jëkkër su neexee ak su naqadee su neexee nga topp su naqadee nga taalib ne kii jaaduwul kooku tamit yëgu moo yàlla ndax suy jaamu yàlla la ñu takk ci farata yàlla ak sunna yonente sallallahu alayhi wa sallam mooy mooy caractère sëy waaw su neexee nga ne ak tubaab yi sëy bi neex na su naqaree tuuti nga taalib yow su ngëm def na dafa war naq di nag suy naq di nag nga ni ah man yàlla nekk bëgg na ma kat yàlla mi ngi may nattu nag nga war nag def un défi par rapport ak yow pour sa sëy boobu rek te fexe ba mu neex te fekk mi ngi naq di moo koy xoromal ñoom soxla yi ñoo koy wax la nee nañu sëy bi pour mu neex foog mu kii mooy tax mu am xorom mooy tax mu tax mu am tuuti kaani mais su yëpp neexee maa seen ner waaye wax dëgg yàlla daal tabarakallahu daal baaxul foog muy naqari nga xëy dépense ñàkk xëy affaire yi maasewul xale yi feebar amuñu garab yow wuti docteur ji soo docteur lamp yi ñu coupé leen ndox mi robinet bi jóg wàcc googu rek dara maasewul mais ci biir loolu ngeen matal seen waru bu sëy xam ne jaamu yàlla la loolu tabarakallah maa leen koy wax bu baax a baax a baax xale yi aussi ak njaboot ak way jur yi xaleel xamul lu dul li mu bëgg xamul lu dul loo bëgg loo bëgg daal yaa seen papa yaa war nañ ci daw ba dee jox la ko te xamoo fa ñuy jar ba am ko war nga muñ yow tamit xaleel xam ne adduna neexu na ñëwuñ pour am ci du neex ndax suñu punition bu jëkk maam adama alayhi salaam tàmbale àjjana la nekkoon yàlla fas yéene natt yàlla jaar la fa mu jaar àjjana yi ñuy garab yépp bu lekkat ba mu def bee bu ko laal xër ak curiosité curiosité doomu aadama waane waane doomu aadama tax muy mën daal yii neex na mais beelaa bu ñu xool bi ko yàlla tere dem mosk yàlla ni ko waa léegi nag demal yóbbu naa la àdduna mooy dëkku nattu ko sa njaboot yëpp fu ñu jàpp ci nattu kon nag doomu aadama ala kulli xaal nattu kon soo dee doom lu àdduna neex neex nga bëgg ko bàyyi la xel sa ay wayjur fañ kaa wutu ci dafa metti nga leen di muñal nag di leen suturaal nag dañuy muñ ci yàlla tax xam ne yow tamit doom ni yàlla di éprouvé way jur bu góor di éprouvé way jur bu jigéen yow it doom dañ lay éprouvé danañ ci egg insha allah su léegi léegi léegi léegi léegi wa wasfayna al insana bi waalidayhi xusnan ay amarnaahu amran muakkadan bi ixsaani ila waalidayhi gaayat al ixsaan li annahuma saba wujudihi wa lahuma alayhi gaayat al fadli wal ixsaan ne yàlla nee na dénku na santaane na santaane bu dëgër ci nañu teral way jur yi daytalu teral ci rafetal ak ñoom ndax way jur yi ñooy sababu suñu nekk ci kaw suuf amel nañu leen daytalu ngëneel ak rafetal jëme ci ñoom way jur yi tamit am nañu cër ci njaboot gi al walidu bil infaq wal walidatu bil isfaq way jur wu góor responsabilité mooy wuti mooy kër kër yi mooy wuti lu mu dënale kër gi soxna teg njaboot gi loolu la ko yàlla teg donte soxna si am na wërsëg am na fu mu koy lijjantee am na lu mu indi yow defal di la yàlla sant demal nga kër nga kër yi nga wuti sëriñ Fadilu Mbàkke radiallahu anhu wax nañu xakim la woon waa ji dafa ñëw si moom ni ko sëriñ bi jooytu ko jamono jooytu ko jamono nga nga ni kër la jàpp mu ni waaw këram a jàpp mu ko bindal kër mu bind kër kaafra mu ko bindaatal kër masal raaj yi suuf mu ko kër këri la taal kër këri kon wéyju yi dañu war dem kër këri loolu la yem yàlla santaane kër këri wut indil jaboot wéyjur bu jigéen mi nampal diggante nampal boobule ni mu xati diggante waajur ak doom cofeel gi ak yërmale gi ak sutural bi lañ ko sant affection bi nga xamante ni xale boo lakk papa yaay ku sa xarit mu ni sama yaay papa saxarul de déedéet te yaay la gën jege ndax nampal nga fa jaar diggante boobu dafa xat lool lool lool ak jur ba ak ya fa jaar yëpp tabarakallahu xale boo laaj mu ne sama yaay sama xarit loolu moo waral wante imaamu saawi borom jalale yi ne innama amara allahu lil aw al awlaada bi birri waalidayhi duuna al aqd لأن الأولاد جبلوا على القسوة وعدم الطاعة الوالدين فكلفهم الله بما يخالف طبعهم والآباء مجبولون على الرحمة والشفقة بالأولاد فوكلهم لما جبلوا عليه لولي ما قلت به عندنا borom tafsir yi nee nañu doom yi doom njaboot yàlla daf ko sant mu teral way jur yi njaboot la yàlla sant nga wuyu sa way pas le contraire way jur war a topp njaboot mais njaboot moo war topp way jur ndax njaboot yàlla daf ko bind daf ko tëgg ci lan ci durée bi koo xal xol bu wow xale dafa dëgër xale yi ko dëgër lu la sa bàyyi sant la sa yaay kenn mënu tax ba nga def yàlla sant leen le contraire nag way ju njaboot yi seen contraire na nature leen yàlla sant mooy dig dégg leen seen ay way xam nga li jafe na yàlla leen bind ci durée bind leen ci ñàkk nangu seen ndigal way jur ba noppi sant leen ñu war topp seen ndigal way jur muy defi bu rëy ci njaboot way jur yi yàlla leen bind ci ci yërëm seen njaboot ak topp seen bànneex bakkan seen bànneex lu ñu bëgg ba léegi soo bëggee sa njaboot ba lu mu bëgg nga bëgg ko parce que xale yi bëggee lu neexul yàlla daa ko fekk war ko ci fekk yàlla di la kon loo ko bëgg-bëgg fekk ci yoonu siratal mustaqim donc kenn ku ci nekk dañ la jox sa contraire yow njaboot yi nga xamante ne nangu woo topp ndigal mun nga toppal ndigal laa la sant wayjur bi nga xamante ne lu neex doom neex na ko mun nga fexe fexeel ba teg ka fi neex yàlla faasir a neex yow ak ci ko neex mu di ñaari dëpp yoo xamante ni kenn ku ci nekk am na ci responsabilité bu rëy ci l'islam wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ay wa in بذلا كل ما في وسعهما وحرصا كل الحرص على أن تكفر بالله وتشرك به شيئا لا يصح أن يكون إلها ولا يستقيم ولا تعهما في ذلك أنه لا طاعة مخلوق في معصية الخالق yàlla nee na subhanahu wa taala yow njaboot su ñaari way jur yi sonne def seen coono def seen itti def seen xër ci wet gi looro yàlla mbaa ñu bokkaaleeloo yàlla bu ko nangu mukk mukk mukk mukk mukk bu leen topp ca loolu mukk ndax nit ku ñu bind warul xiir ku ñu bind ci mooy ci mooy loxo yàlla la taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq jàng lax dër yu jàng nañ ko yaakaar naa ku ñu bind jaam rek na yow jaam nga jaam jaam la jaam la yow nga fexe ba jaam bii di la def loo loo xamante ni yow xam nga ñuy jaadu nga nangu ko ci doonte sa way jur la bu góor baa bu jigéen yàlla nee na bu ko ca topp kon way jur yi lu ñu baax baax baax lu ñu leen topp topp topp lu ñu leen teral teral am na ay limité ku la ci woo ci bokkaale ak yàlla ku la ci woo ci weddi yàlla weddi yàlla yaatu na nag su ma nee weddi yàlla way jur duna ni waxal gëmatuma yàlla mais mën na la def loolu la weddiloo yàlla way jur mën na la sàcciroo mën na la narloo mën na la duggloo ci ay waabu jiima yoo xamante ni jaaduwul bul ni damaa protégé sama wayjur ba def lu neexul yàlla daal di ah waaw kay xanaa dañ ko xoolaat rek tontu ko tontu bu rafet waaw dinaa dinaa ko xool naa ci bàyyi xel nangam nangam su demee ba yëg ni tabarakallahu dëgër na bopp nga def li saabi ibnu abi waqaas defoon ci yaayam yéen nga xam nga luy dëgg bàyyi am na foo xamante ne du ma fa àggee yow fonk naa la ormal naa la jox naa la cër wante lii ma yàlla sant ak li ma sant bokkul de lii ma yàlla sant insha allah lay def li ma sant ma ko def loolu yàlla santaane nag fi njaboot ku mu doon ku kooku mën ci doon soo demee ba sa wëy ju fas yéene la wàcc yoonu lislaam waxante la mu ak njëkk teraanga ci def li yàlla santaane ndax li ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluun ndax yàlla nee na ay ilayya marji'ul xalaa'iq jami'an ci moom la ñu dellu ci wat ñi gëmoon ak kaafir yi ñi baaxoon ak kàccoor yi fa ujaazi kullan bima amila fii nee na kenn ku ne mu fay la sa jëf ju rafet soo jëfee lu baax yàlla fay la soo jëfoon safaan it yàlla fay la yal nañ yàlla may su boobaa ñu am yu rafet tabarakallahu suñu diggante ak way jur walladina amanu wa amilu salihat lanudxilannahum fi salihin ay lanudxilannahum fi zumrati salihina fi janna mais gars yi nga xam ne nag gëmoon nañu yàlla gëm yàlla santaane gëm wéetaa yi bàmmeel nee nañ ñooñ ñoom ci jëf-jëf yu baax jëf yu sell ñooñu àjjana leen yàlla di dugal ñu nekkandoo ak saalixiina yu baax yi jiitu woon mu doon seen fay dina yàlla fay yàlla bu ñu loolu unk wa min annaasi man yaqulu amanna billah fa ida uuziya fi llahi jaala fitnat annaasi ka azaabi llah ay wa min annaas fariqun yaqulu bi alsinatihim amanna billah فإذا أوذي أحدهم بسبب إيمانه ارتد عن الدين وجعل ما يصيبه من أذى الناس سببا صارفا عن الإيمان كعذاب الله الشديد الذي يصرف الإنسان عن الكفر mais am na ci ñun ñoo xam ni dañu naan gëm nañu yàlla ci seen lammiñ wante su leen yi suñ leen loree seen sababu gëm googu le ñu génn ci diine l'islam ba noppi nag def seen sababu génne lislaam boobu rek mu ne fitna ci ñoom te seen mbugalu yàlla ci àlaxira yàlla ñu ëpp mooy nafiq yi waxoon nañ ko ay bi ñu ko door a expliqué gën ko tax ñi nga xam ni gëm nañu yàlla moom la ñoo woote danañu julli ci jàkk ji danañu woor ci weeru koor jotee danañu saraxe danañu génne afrika wante benn nattu bi gën a tuuti na di mbokk mu dee yaakaar nga ne yow sa adduna jeex na sa dund bakkan teguloo ko fenn yàlla nee na innaka mayitun fa inna mayitun salaa sallam yow da ngay dee ñëpp dañuy dee waaw kon sori julit mais dee war koo jaaxal da nga naan ko yan yéef ci ñun mais su dee egsi ak naw mën ñëwee da ngay nangu daxul yàlla nga xam ne maa ci def ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen mais am na ñoo xamante ni su amee dee rek seen adduna jeex na loolu tamit jaaduwul du muñ am na ñoo xam ne suñu amee feebar yow feebar nga yaakaar nga ne jeexal nga sa adduna jeex na bàyyi nga julli sax saalit am na du extran tey jii ci wàllu docteur ñaan euthanasie euthanasie mooy ñoo xam ne suñu feebaree att nañu souffrance att nañu métti dañ naan docteur bi sukkiir ma ma dee ma dem kooku saalit la kooku weddi yàlla la am na tey ci Europe am na sax ci julli yoo xam ne ñoo koy def dañoo dem ba Europe demandé ñu bindal leen lettre avocat procureur yu ma xamul ñu signé ko docteur ñëw fii dañ ñu dee kooku yow nangu woo muñ dogalu yàlla alors que feebar bi nattu la jullit bi ñuy wax suñu deewee te feebaroon dañ naan yàlla de tëraayam doon xisaabam yàlla xam na ni ci tëraay boobu le soo muñee na nga war muñ mën na fekk booy tax xisaab nga dee dem àjjana yàlla mën na fekk ëllëg wala ci accidenté wala ci laf si wi dex seen lab boobu ak seen accident boobu ak seen lakk boobu lu mu metti metti mooy seen xisaab nga dem àjjana mais su la fekkee mënuloo muñ loolu mënuloo ko toléré te gëmuloo yàlla kon ku feebar aussi war nga xam ni natt la bu fa yàlla jaarale souffrance ba mettit ga jëndum garab ga laboratoire lu mu metti metti nga di ko muñ ànd ak dignité ba yàlla def la mu ca def ñàkk liggéey ci jamono ji du natt mais nattu la sori julit amuloo liggéey xam yàlla indi yàlla indi loolu jàng nga am nga métier yaa ngi sutur mais amoo liggéey yàlla la sopp mais boo tax boo tax nga sàcc waru tax nga nangu ñu ger la waru tax nga dugg ci lu leen seen nekkul waru tax nga jël alalu njëriñ boo moomul waru tax nga jël sa alalu soxna waru tax nga jël sa alalu doom yi war may nga jël seen la lekk ko amuloo liggéey nan nangu dogalu yàlla ba yàlla ñëw dogalam jox la liggéey ndax leen bi ne sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu dahra fa inna allah huwa dahr bu leen ñaññi jamono yàlla mooy jamono yàlla la soog jamono fii ci réew yi ku am certificat d'étude ba la ngay génn centre boobu lañ ñëw jox jox la liggéey yaram liggéey am salaire am kër léegi yaa baccalauréat taxul am liggéey maîtrise taxul am liggéey docteur d'état taxul am liggéey yàlla la soog yàlla moom jamono boobu de moom amoon ko démb moom ko tey dañ koy ñaan kay yal nañu yàlla xool bu tu yërmale ba defaraat jamono ji tabarakallahu ba ñëpp mën a dund dund gu dund gu woyof na ma ñu dunde woon mais kon dee nattu la feebar nattu la ñàkk tabarakallahu ñàkk dund nattu la ñàkk liggéey nattu la ak yeneen nattu adduna yëpp kon soo boolee sa julli ak sa woor ak sa saraxe ak sa aj màkk ak sa jàng alquran te boole woo ci muñ natt yooyu de sa diimaan des na des na lool lu bare lool kon nag loolu tabarakallahu nañ ko boole ci bagage yi nga xamante ni day nekk bagage ci jullit masha allahu taala noonu la nit di nekk fadaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam limaamul faxri faxu razi nee nañ yàlla di natt ñetti lañ ñetti ñi dafa nekk ci kaw suuf muuminun zahirun bi xukmi atiqaadihi wa kaafirun mujaahirun bi kufrihi wa inaadihi wa muzabzabun baynahuma ñett fi nekk ci àdduna bi jullit bu gëm bu fësal ngëmam lu ko ci mën ci fekk fekk ko ci ca lañ lay bëgg ca lañ lay bañ ca lañ lay xaare ca lañ lay sopp ca lañ lay dimbali ca lañ lay xañ lépp wante sa gëm ji daal dara du ko koñ ak kaafir boo xam ni dafa fësal weddeem ak xeex diineem nëbbu ci dara amul ci benn kenn bëggul yàlla bëggul ko xam yàlla bëggul ko jege yàlla kooku tamit fësal na ñu mel mais ki yées ci ñooñu ñëpp ci yées kaafir yi mooy mu zëb zëb baynahuma ci nekkul jën nekkul yàpp doo jën doo yàpp yokkal ma ci doo sipax yokkal ma ci doo koti kenn xamul ban nga ci mais c'est grave mooy gaa yi nga xam ni dañoo nekk ci biir jullit ji neex na ñëpp jullit lañu weeru koor suñu toogee ci béréb la di sa Europe mbaa ci Amérique mbaa ci biir réew yi ci tay boo xam ne ñoo ngi ña ñoo ngi ŋaññi jullit yi nga ni pat doo jullit daal di yoggooru ni pat xëy na sax daal di jël am loo critiqué jullit yi soo ko soo koo bokk doo si bax doo jël wëbati ko dem ci jullit yi ñu daga alquran sag ñu baax nga fësal te l'islam man kay jàkka fajar du ma raw man kay nangam nangam aj màkk sama sarax sama li sama la ñu ni kii ku baax la dem feneen yëgati ay kab di gàññi sa sëriñ nga ni yell bokkatoo du ma taalibe bokk ma ci benn tariqa doo ma sëriñ daal di làqatu toog beneen yëgati ay kab ay sëriñ diw maa ka naw ak am xam-xam nga ni sama sëriñ daa la woon a téléphone léegi sax sama xarit diw diw diw mais loolu lañ na fex dëkk bii réew mii mi ngi fi ñu xus ñoo xam ni su baaxee rek ñu ànd ak yow su naqaree tuuti ñu da ñu daan la yooyu dafa garaaw dafa ñaaw nit sooy ànd ak moom da nga koy ànd ànd ak moom su neexee ngeen ànd su naqaree ngeen ànd mais su neexee ngeen ànd su naqaree nga jàmm ko dëmmuyu ko loolu naaf la yooyu tamit mooy yi yiis yi nga xamante ni yàlla du ko baale tabarakallahu du leen baal seen bàkkaar borom tafsir bi ne allah fiifa fi aya li war jële ci moralité aya bi an allaha arada ببيان شرف المؤمن الصابر وخسة المنافق الكافر فقال هناك أوذي المؤمن في سبيل الله ليترك سبيله ولم يتركه وأوذي المنافق الكافر فترك الله بنفسه وكان يمكنه أن يظهر موافقتهم ويكون قلبه مطمئنا بالإيمان ومع هذا لم يفعلوا ما ترك الله بكلية يالا دوغ ولا ci aayam dafa wane ni yàlla teerale jullit bu gëm yàlla ku gëm yàlla te di muñ muñ yu metti yi muñ nattu yi muñ deere yi muñ xiif muñ mar mu ñàkk wërsëg mu ñàkk kaaraange yépp soo ko muñee yàlla teral na la bokk nga ci saalixiin yi bokk nga ci nga xamee ne àjjana yu gën a kawe ngay dund yi ngay ngay dekke yàlla buñ la ëpp yàlla wane it ni mu toroxale kaaf yi ak munaafiq yu weddi yàlla ak yi nga xamante ni su leen neexee gëm su leen neexee mel nañ nekk si diggante bi ne suñu nattoo jullit ci ngëmam ci yoonu yàlla pour bàyyi diine du ko bàyyi mukk jullit bu gëm suñu la nattoo mbir waate la alal ju bare ñu tegoon fii un milliard ci ko xamante ni mosul téye mille franc mosul téye cent mille franc nit ñëw jóge fële indi un milliard xobet xobet su sax seet ni dama bëgg rek ngeen ni weddi naa yàlla rek na wax ka rek man na nga ko wax rek loolu soo gëmulee na nga ko wax te du tax kenn wax ci gannaaw wax nag ko gëmul yàlla voilà ci gannaaw wax xaalis bi jaral la ko loolu si en en en en récompense mbugalu yàlla jaral la ko kooku gëmul yàlla lu milliard ba neex neex lu kër ga rafet rafet ñun la benn seconde rek waxal ne weddi naa yàlla gëmuma yàlla gëmu leen bi sallallahu alayhi wasallam nga tey sa xaalis te weddi nga boobu gëmuloo woon kon yàlla nee na teral nga jullit mooy ñu nattula ci sa ngëm ba noppi ngay def sa ngëm dara du la ébranlé lu ñu la ci mën ci wax lu ñu la ci mën ci xaste lu ñu la ci mën ci tuumale nga def rek di jullit kooku moo gëm wante munafiq yi ak kaafir yi dañu leen natt ci saas ci jàmbu yàlla ci saas yi ñu bàyyi yàlla ci saas génn lislaam ñooñu nag yàlla bàyyi naa seen bopp dañ ko yàlla bàyyi sa bopp ko jël la hawla wala quwwata illa billah ñun ñu yàlla bàyyi seen bopp gis nga li gën a important ñu war ko bàyyi xel jullit bu la dara xiir ci naw ku dul jullit ci ëppale na moo la ëppale daraja wala moo la ëpp wërsëg ça traduit benn complexe dina ngir nga man jullit laa maa ngi jaamu yàlla maa ngi def yàlla bëgg mayu ma ko benn yoon konte man aw ma dara mënuma am xaalis mënuma am wërsëg mënuma am liggéey mënuma am place ba yàlla li mu doon keneen koo xamante ni gëmul yàlla dafa weddi yàlla dafa mooy yàlla guddi bëccëg yàlla jox ko lu mu bëgg examen day réussir liggéey mu am ko am wërsëg am teraanga am daraja mën ngi li mu li mu doon yàlla ni la bu mu la ébranlé bu mu la yëngal yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia boobu an al axirati xaafilun ñooñu àdduna lu ñu bëgg yàlla jox leen wante si alaxira yàlla xañ leen bépp teraanga kooku kooku kooku du nawle kooku du ko jar a roy kooku du ko jar a ñey du ko jar a envie kooku du du ko jar a envie ci dara wante yow jullit yàlla ni la naa la xañ dund naa la xañ wërsëg naa la xañ liggéey naa la xañ nangam nangam nangam di seet ndax daa ko muñ soo ko muñee muñ ko rafet nag ah këru dëgg nga xamante ni mooy la vie éternelle mooy alaxira dëkk ba faw àjjana yu kawee fara nay faye nag nga dugg àjjana am teraanga loo bëgg a jot ko kon ñu war xam ni fii ñu egg ci àdduna jaar jaar bu gàtt la jaar jaar bu gàtt la bu soof bu naqari bu bare tërëf tërëf ku jaawale rek mooy ku ñëw jël àdduna jax la la nga amul ci yaakaar ne fii la yem jullit warul la nga amul ci àdduna soo la nga amul ci àdduna mooy tax nga mën liggéeyal alaxira am fay bu rafet mais soo la nga amul ci àdduna carrément doo mën gis alaxira dara yonent bi ne sala alayhi wa sallam kun fi dunia li annaka garibun aw gaabil sabil ne nekkal ci àdduna na gan gu fi jaar gan gu fi jaar takkal sa bagage di waaj a dem nee na su la fi xëy fekkee nir saxaaru ngoon lay dugg ci lay dem alaxira soo fanaanee bu guddi fekk la nir saxaaru fajar mu may yóbbu xam nga ku nekk ci xaal boobu de xaalu voyageur en escale ah voyageur en escale doo yulli sa bagage yëpp doo lekk sa yóbbul yëpp ndax yóbbul ci alaxira la jëm bagage ci alaxira la jëm mooy jaamu yàlla yi mooy jëf yu sell yi mooy jëf yu rafet yi donc loolu soo nekkee ci melokaan boobu chaque jour nga ni man tey laay gont suba laay xëy mais doo mooy yàlla doo ko jàdd benn yoon mbaa soo ko jàddee it ndax sa doy na doomu aadama daa gaawantu gaaw def lu baax ndax yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen ragal yàlla képp ku ci def lu bon bakkaar bu bon bakkaar bu ñaaw wax la mbaa jëf la gaawantul gaaw nga tofal ca lu baax ndax sa lu baax loolu mooy far lu bon li di koy yërmale yàlla la kon chaque jour rek may nañ tendre nañ la lendemain buy de sauvetage pour nga mën a sauver wu foo defee lu bon foo waxee lu bon foo waxee lu ñaaw foo defee lu ñaaw gaawal julli sa rakk def istixfaar gaawal génn sarax xëy la woor jàng alquran yàlla baal ma yàlla juum naa yàlla baal ma nga tiit yàlla baal ma nee na soo defee lu baax lu baax day far lu bon nee na yàlla bind na ay malaaka yoo xamante ni soo defee jëf ju baax malaaka yi ànd ak jëf yi muy ray ray ba asamaan asamaan bu ne ñu romb ko naa leen jiwa def nangam jiwa def nangam ba asamaan ak juróom-ñaar ba ci dërëtul mun taxee ñu ne jiwa def nangam malaaka yi bind agré soo defee jëf ju bon ñu dëgg seen tànk jëf yi di xaar di négandi négandiku nga def lu baax soo defee lu baax rek soo bon effacé wu xam nga yàlla baax waay yàlla am ci ñun yërmale waay nag kon fii nga war dégg ni li nit yàlla yi di wax naan jurit amul kër gu dul àjjana fii lañ ko teg soo ne melee ni nga war mel di tiit di ragal foo defe lu baax lu lu bon ndax doy nga gaaw safar sa lu baax daal insha allah taala amuloo benn kër loolu yërmal yàlla ñu ànd ak man guddi bëccëg dee dem àjjana dee dem àjjana kon loolu tabaraka allahu nit yi ñëpp bàyyi xel yan nañ ci yàlla boole sutural wala in jaa nasru min rabbika la yaqulunna inna kunna maakum ay wala in jaa nasrun qarib lilmuminina wa fatxun wa magaanim qaala ulaika almudababuun inna kunna maakum nansurukum ala adaayikum su yàlla indee ndam namal julit yi namal ñi gëm damal lislaam indi wërsëg rek munafiq yi génn ñun ci yéen la ñu bokk ñun dañoo xeex noonu lislaam yi ñu ne yéen a ànd ngir am lañ saa kay sama yi dafa ñaaw mooy am ci mbooloo yu bare bare bare su wërsëg feeñee rek ñëpp bokk su natt yu ñëwee ñëpp bàyyi lan mbooloo ma xam naa ni sëriñ si nekk na wuñ ko de man dund nañ yoo xamante ni duñ ko nekk di kenn ndax gis yu moo de ah yal na mu yàlla baal ñoo ma ko sañ wax ci ay taali bi sañ lan bu nekk su xéwal yi feeñee teraanga yi feeñ ñëpp jege ci man diw sama sëriñ man diw laa yaakaar man diw sama wasiila ndax nit ñi téef yaa yaa ngaa jox su sëriñ ba ñëwee nekk sëriñ bu ndoon yarul dara saa bi dëmm yi ko jox ko gannaaw eh sëriñ bi yoru ko yaa ngaa dem te ña ko yor mel na ko ña ko yor moo ñu yor dërëm bi alors que ña ko yor xam-xam la ñu yor ak ragal yàlla la ñu yor ngërëmal yàlla la ñu yor leeru alquran la ñu yor fa tabarakallahu ku leen jege yu wàlla seen seen leer googu le kon looloo ko yor awalay awalaysa allah bi alam ma fi suduri alamin أي أوليس الله هو العالم بما انطوت عليه الضمائر من خير وشر وما في قلوب الناس من إيمان ونفاق خنا مبقي خنا بو يالا مو خم لي نيك سي بير كونسيانس دوما ادمي ñun ñëpp ñu dog nag lu nit waane waane waane waane nag kenn xamul li sa morom xalaat ci yow kenn xamul li sa morom ëmb ci yow wante yàlla xam na ko xam na ñi gëm xam nañu weddi xam na kenn ku ci nekk loo ëmb ci sa dënd ëmb ko sa morom xam na ku ci nekk li nga gëm ak li nga nekk nafiq wala yaalaman allahu alladina amanu wala yaalaman al munafiqin yàlla nag nee na si wàll boobu nag dana feeñal ñi gëm seen ngëm tabarakallahu seen dëggu ci adduna gi ñu janoo ñoom dana feeñal it nafiq yi nga xamante ni dañoo triché su baaxee ñu ànd ak yow su la demee ñu safaanoo la dana leen wuññi na leen feeñal ci adduna ak ci àllaaxira yal nañu yàlla xiir ci boppam yal nañu yàlla xiir ci dëggu tabaraka allahu xiir ñu ci li mu gërëm fii laa koy tënk ndax ci saa daañu mel na luy jege su ko defee insha allahu taala niñ ko baaxoon daan defee dimanche bu jot suñu ko yàlla yombalee ñu dajawaat fii mottali saar bi ba fu ko yàlla yemale insha allah taala ñu tëj ko ñoo ngi ñaan yàlla ci mbaaxama yërmaleem nag lépp lu ci jub yal na ko yàlla gërëm lu ñu ci jub mbaa mu dënk sunu doye di la doye doomu aadama la yal nañu ko yàlla baal ci sutura la ñu ko yal nañu yàlla xiir ci dégg ko te jëfe ko ndax objectif bi loolu kott moo ci am du rek jitaay bu ñu toog nii firi waxtaan déedéet du jitaay bi na mëntiku déedéet dañu ñëw pour indi leetaru yàlla bi pour ñu xam li yàlla bëgg ci ñun li yàlla namm ci ñun ñu góorgóorlu ñu jaar ci kon yal nañu yàlla may dégg ak topp nopp yi nga xamante ne mooy nopp sami'na wa ata'na dégg nañu te fas yéene nañu topp sa wax yal nañu yàlla may loolu moo ñoo tax suñu bi jaratuwaatee beneen dimanche kenn ku ne yëg ci boppam ni am na lu mu ndollent ci liimaan ak leer suñu yàlla mayaatee ñu dund ba déwali insha allahu taala kenn ku ne yëg ni fa tabarakallahu yàlla dolli na la gën ka xam gën ko jekk yal nañu yàlla xiir ci boppam yal nañu yàlla jéng ci siratal mustaqim ba suñu ko bëggoon wàcc duñ ko mën yal nañu yàlla boole nangul nangu leen gan yi fi ñëwoon yëpp yal nañu leen yàlla sàmmal ci seen jëmm ak seen alal ba kenn ku ci ne delluwaat ci biir njabootam sippi bàkkaar sës yiw yal nañu motal liggéey bi ak suñu sago ci yàlla bu mu doon suñu mujj jaaj daje allahuma jaal jamana hada jamaan marhuman وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ bi ñu ngi leen di nuyu di nuyu mboole seen njabootu sëriñ Maguette Cissé yi fi teew ak yi fi teewul di leen delloo ndokkeel weeru koor wi teru di ndokkeel kàddu barke yiy jub guddi gu jot di ndokkeel it jotaayu tafsir bii ngeen ubbi tey jii yàlla ngeen ko mottali ak seen sago ñu bokk di ko wéttalante ba ca cëppaandaw ba te mu dëppoo ak sunu ngërëmal sëriñ di rafetlu bu baax a baax a baax kàddu yi li ngeen seede ci sëriñ Maguette Cissé radiyallahu taala anhu di ngeen di tàmbali moom la ñuy seede ci yéen da ngeen wax ni dafa tax ci xam-xam sonn pour nit ñi jëriñ ah Cissé yi ngeen tegoo metti na pour ñu dégg pour ñu jëriñ yan na leen ko yàlla fay te yan na ko yàlla yombal jàngale ngeen ñaari baat yu gàtt mais yu am solo lool tawar fakal ndax tey day dégg nañu tuuti fondement wu wax yu siiw ci réew mi léeg-léeg mag dana ni bu ñu toogee diir amuñu leen naqadi amuñu natt amuñu dara ñu tiit seen bopp lii ñu dégg ku dégg lii bu la yàlla nattul daa tiit wante daa dégg ni dundu taalibe mooy dund muñ natt yan ko yàlla yombal sëriñ bi yan seen taxawaay yàgg yan yàlla bàkkeel xam-xam bi te yan nañ ko bokk muurloo assalaamu aleykum wa rahmatullah
asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci turu mboole seen taalibe yi féete Dakar di nuyu ci sa jëmm ju tedd ji bi mboole seen njabootu sëriñ bi Cheikh Seydi El Hadji Madior Cissé di ci ràññee sa mag sëriñ Babacar Cissé ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru tedd bi le di leen massawu coono yi ngeen tegoo ngir dundal ñoom ci seen wàllu diine seen tàmbali wax yéen a ngi feeñal seen kontante ci suñu teewaay ma jàpp ni da ngeen baax ak tamit bëgguñu yokk sawarte ndax li nga fi wax ci ngëneel yu nit mun am ci jotaay yu mel nii le te jaamu yàlla giiru dundam te amu ci lu ñu mel jaar na jóge fu gën a sore Dakar pour egsi fi ñun kay yéen lañoo sant ci bunt yi ngeen ñu ci dig ci jotaay bu mel nii ba ñu mën fi sàkk tuyaaba bu mel noonu yal nañu leen yàlla boole fayal yiw di budul woon loolu itamit que waxtaan bi nga waxtaan fii rek jaroon na jóge fu sore mu di wàllu muñ lu nga xamante ni miin nañ ko dégg ci sëriñ bu nekk ci rajo yi wala feneen te ku nekk boo dee jullit am nga yéene doxale noonu wante yombul ñëpp mu di ñu dellu di ñu feeñal ni ànd ak sëriñ rek moo am solo ndax moom moo mën tàggat jullit moo mën tàggat taalibi ba yooyu taaju si dënnam ba yomb ko ba tax na yal na yàlla saxal suñu ànd ak yéen yal na yàlla mottali yéene sëriñ bi si yéen mottali ko si si mbooloo bi yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah
alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullah anna xayral jazaa yéen ñëpp boole seen rafetlu nañu seen ay kàddu ci turu daayir yi ngeen jiite ci ndar ak ci ndakaaru ak li ko wër tabarakallahu li lañ ci bëgg it su ngeen àddoo dalal ngeen suñu xel ci ñu dégg ngeen taataan ngeen te li ngeen dégg neex na leen te bëgg ngeen jëriñu yàlla bu leen kenn ëppale ñun ñëpp yal nañ ci jëriñu àdduna yal nañ ci jëriñu alaxira fa tabarakallahu yéen waa ndakaaru nag am ngeen mention spéciale ndax yéen ñëpp ah yéen ngi ñëw indi seen i appareil ñi leen ngi filmé yeneen ko boole ci internet ñeneen ngi toog sa Dakar di ko seetaan ak bitim réew macha allahu taala lii de yëpp seen liggéey la ci wesaare kàddu gi ba ñeneen feneen mën ci jaruñu ci minute bi am ngeen fay daañu leen yàlla fayal jazaa al muhsinina yal na yàlla mottali ko ak sunu sago subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون